Abdoulaye Tagué kooku mooy kan aw askanam feeñuk jamonoom ak jaar-jaaram waa sëriñ saalix kenn la ci njabootu ku tedd ki mu ngi gane àdduna ci dëkk bu tedd bi nga xam ni ne xam na ni fa la sëriñ bi ëpp lu mu nekk ci zaahir muy njaareem sëriñ bi def na fa fukki at ak juróom ñu ngi ko fa indi 1912 jële ko ci yeen jolof sëñ Bang fa aksi bisu altine lundi Tolo ak 15 janvier 1912 wax ni Ramu Masiri la da eh, eh, ilaa Jurbel la da daa la sasin la waayenoo sirama fii sayri maa raamu sàkku nañu sama ñew Jurbel mu buñu xamone ñom nasaran ñoom indi Jurbel Lima fay yalla dencal ci secret kon duñu sak sama dox di rañan ñew Jurbel bi fa sëriñ bi ñewé ba def fa ñetti at ci la Serigne Saliou gane àdduna hmm. loolu mu ngi tolloo ama jal sa ci atu gàddaay gi ama jal sa moo tolloo ak 1330 ci la toll ci gàddaay 1333 1333 boo ko indee ci miladiya mooy tolloog 1915 ama jal sa sin 1333 ci la Serigne Saliou ge feeñ ci jamono Saliou mu ngi gane àdduna ci fukki fan ak ñeent ci zul qaida mooy weeru diggiw tabaski ci la Serigne Saliou ñëw tolloo ak 1915 bi mu feeñee tam sëriñ sa suubaa def ci lu yéeme ci ganam googu feeñ sëriñ bi dafa woolu Serigne Mouhamadou Lamine Diop Dagana daal di koy jox a saaliha mhm. xam nga saaliha la ko jox ni ko na dem joxe jutur wi léegi li yéeme mooy li ko sëriñ bi man sóobal saalixa jooju tax mu man sóobal ko uh-huh. kon tudd na ko mais am na lu ko tuddal moom mu daal koy jox sëñ Mouhamad Lamine Diop Dagana uh-huh. sëñ Mouhamad Lamine bi mu demee ngooy ca bayit yu rafet wax ni yàlla la saxal sëriñ saaliw mii mu mujj ci jamono mel ni jant tiim ñépp te defe naa képp ku bokk ak jamono sëriñ saaliw xam nga ni mujj na nekk jantub jamono te loolu sëriñ Moussa Ka woy na ko ci wolofalu xarnu bi bi muy woy doomi sëriñ Touba yi bi aksé ci serigne salih dafa wax ni mbooleem ñu doni salihin ki soowub jant mba fe yàlla na seex saaliwu di seen jant bi tim wa xarnu bi yarok bimu feñé serigne bi wax ci yu bare bare bari yu yaakaaru ci ganam gog di serigne saaliwu mbàkke bi yalla do itam ñu bolé ko ci askan wo xamni askan wu kawe la ndax lañ nga ma askanam moy mbakol mom mbakol mbakol wé juram wu jigen moy soxna fatih jahati doomi sëñ Moodu Asta Jaxate sëñ Meewoon soxna Faati Jaxate mbokk soxna Mariama Jaxate soxna Aysatu Jaxate ak sëriñ Balla Jaxate ak sëñ Abdourahman Jaxate ak ak sëñ Amsa Jaxate njabootu sëñ Moodu Asta Jaxate ñépp liggéey lañu sëriñ Touba sëñ Abdourahman Jaxate moomu moo meññi soxna Mëti Jaxate soxna Mëti Jaxate sëñ Saaliw mi nuy waxtaane moo ko jël am ci jàmbaar ji sëriñ Moustapha Saalih ak magam mi nga xam ni mooy taawu Serigne Saliou di soxna astuwaalo Mbacke euh, sëriñ Mbacke jaxate sëñ bi fonkoon na ko daana ko watloo kawaram sëñ bi mës na koo jox yàbbitu guróom ak kawaram ni ko hëza xayrun laka mi dunya wa ma fiha lii ma la jox moo gën ci yow àdduna ak li ci biiram sëñ Mbacke jaxate nee na wat naa sëriñ bi yoor yoor bett ko ginnaaw tàkkusaan kawar gi sëqaat ba àgg ci mbagg yi te maa ko wat nee na daanaa sëriñ Tuubaa ay jëmm yu gàtt di ma topp naan ma may ma ci ndoxu sëriñ bi ma barkeelu ay jinne lañu nee na waaye dama leen di wax sëñ bi joxuma ci ndigal nee na sëñ bi day dox may daw du ma daf sëñ Tuuba nee ku ñu tëkkaleek sëñ Tuuba juum nañu kooku nu ta kenn ci mbindee sëñ Mbàkke Jaxate moomu nijaayu sëriñ Saaliwoo sëñ Amsatu Jaxate tudd naa ko léegi mag ñi dem nañu ba ginnaaw bi sëñ bi génnee àdduna ba ñibbi aljana mag ñi daa nañu am yóbbante bëgg koo jox sëñ Tuuba ca barsàq moom lañ koy jox mu yóbbu leen ko ci sëñ Tuuba boo léegi mu ni sëriñ bi nee na nangam ak nangam kooku nijaayu jaayu Serigne soxna Faat Jaxate nag yàlla dogal bi mu ñëwee ci kër Seexul Xaddiim ñetti leer yi mu fa njëkk a am dañoo teel a génn àdduna ci seenug ndaw ci seenug tuut tànk mooy ku ñuy wax sëñ Abdul Quddus Mbàkke ak sëñ Abdul Baaxi Mbàkke ak soxna Tahiratu Mbàkke ñett ñi ñëpp laata ñuy màgg jëm mag ci lañu ñu wàcc liggéey soxna Faat Jaxate nag loolu am ko def ndax ku sañoon boo amee ay doom ñu toog sëriñ bi woolu ko ba mu ñëw sëñ bi ni ko noon naa sa doom yi dem daam lum la def daal ni yàlla de bu la mayee mbiram bu la dénkee mbiram jël ko warta waral dara xanaa sant ko rek daal ni soxna faati man de kuy ànd ak man mii ngay doxe lu yàlla digle nga def ko lu mu tere nga jomb caa dem lu mu dogal mu neex la soxna faati ni ko ah mbàkke day lu yàlla digle ñu ngi koy def lu mu tere du dëgmal waaye nag lu mu dogal neex nu kooku yow la ko yàlla defal bu lu mu dogal rek neex na la danañu muñ kay waaye nag du lu neex lu ndax ko sañoon boo amee njaboot mu toog fi rawatina nag njaboot gu bokk ci kër sëñ Touba sëñ Tuuf ni ko waaye jaam bi nga xam ne yàlla nga ko feeg jaam baa ngi fi yàlla miy joxe du fi jóge bu mu naagu ci dara maa ngi ñaan sama borom sa doom yooyu dem yàlla na leen wuutal doom joo xam ne bu ñëwee dana fi yàgg dana toog te dana ma liggéeyal ñaan woowu moo dal ci soxna Faat Jaxate mu am sëriñ Saaliwu Serigne Saliou gëna gudd fan ci doomi Serigne Touba. dunduk Serigne Saliou 92 ans la ku ne xam ni yanantu bi alayhi salaatu wassalam mo mujj ci yanantu yi waye doole yépp ci mom la dajé yanantu yàlla Muhammad bo bindé Muhammad 92 la Mim Adam delu mim del, mim 40 Adam delu 8 Mim 40 Del 4 92 ñi jàng physique chimie xamnañ ni uranium mo mujj uranium symbole 92. puissance bi yëpp ay 92 Serigne Saliou dund 92 ans 1915 la feeñ 2007 la génn àdduna muy 92 ans Serigne Saliou tur wi wi ko sëñ Touba tudde mooy 99 turu yàlla yi. boo bindee saali saat gi 60 la. liif gi 1 la. laam gi 30 muy 91. adam dellu gi 8 muy 99. jë à 99 non. Serigne Saliou léppam di kawteef. bi mu ci jàng Serigne Touba woolu nijaayam. sëriñ Amsatu Jaxate mi ma tudd léegi boole kook mbokkam ma sëriñ son yi bu Mbàkke ni ko sa mbokk yii ma lay jox sa jarbaat yii moog sëñ yëpp sëñ Amsatu leen jàngal ak sëñ Abdou sama mu ni ko sa jarbaat mii ma lay jox joxuma la ko ngir aada aada mooy démb njaay day jarbaat sëñ Tuubaa ko dama la koo jox ngir li ci yow nga defal ma ko ci sëriñ Saaliw alxuraan ji laa bëgg mu nekk ci moom soo ko mënee xayrul soo amee ku la ko mënal xayrun mu indi leen boole leen ak ku ñuy wax sëñ Alsaan Jaxate bokk ci njaboot ci mu jàngal sëriñ saaliwu sëriñ saaliwu jàng ba mokkal alquran teel a ubbi ko lool bi mu mokkalee alquran ba koy bindal sëriñ Touba ba àgg ci Ali Imran wa ma muhammadun illa rasulun xat xalat min xablihi rusulu aaya boobu di 144e aaya ci alquran ci suratu Ali Imran ci la sëriñ saaliwu toll ñu daal di tàggee ni sëriñ Touba ñibbi na aljana moo tax daana wax moom sëñ saaliwu kuy jàngati alxuraan ba toll ci aaya boobu foo ko jàngee maa ngi koy yëg ndax ci lañ ma tàggee Serigne Touba ba mu ngi koy bindal kaamil bi ñu boole kaamilu sëñ Saaliwu ak bu Serigne Abdou Samad ak bu sëñ Abdoul bu Serigne Soyibu ak bu sëñ Abdoulaye Jaxate sëñ Amsatu Jaxate boole yépp dem tindoo di ca naab jox ko seen mag ju tedd ju gore ja sëñ Modou Moustapha al Karim ni ko seen wéjur waa waxoon naa jël kaamil yépp jox ko mat na tey yaay sëñ Touba. jox ko kaamilu Serigne Saliou sëriñ Saliou jóge fa jàng xeetu njàng moo xam ni amul ci àdduna ko jànge ni mu jànge Serigne Saliou raw ci xam-xam koy tudd ndax li mu jàng bari Serigne Saliou jaar na ci sëñ Amsatu Jaxate mu boole sëñ Alsaan Jaxate mu wattu alxuraan sëriñ Saliou jaar na ci sëñ ma Masayer Silla ca ci la Dramane mu jàngal ko Serigne Saliou jaar na ci sëñ Mor Saasum Jaxate mu sëriñ maam xaadima jaxate kala mii magi sëñ bay jaxate mu jàngal ko Serigne Saliou jaar na ci sëñ Omar saw moo ko jàngal ilmul falak ilmu nujjoom xam-xamu biddiw amu ci woon moroom astronome la Serigne Saliou jaar na ci sëñ Habibu Mbàkke imam moo jàngal ko te kooku rak sëñ Touba la doomi sëñ Kajoor Serigne Touba gëm na ko jàngal ko boppam Serigne sëñ Mouhamadou Dem borom xam-xam bu mag ba ca njaareem mu jàngal Serigne Saliou ba mu géeju Serigne Saliou jaar na ci mboolem ëtti xam-xam yépp fa mu géeju fa géeju woon na ci ilmu nujuum mooy xam-xamu biddiw géeju woon na ci fiq géeju woon na ci siira lu jëm ci histoire yenn bi géeju woon na ci naxwu géeju woon na ci balaaxa géeju woon na ci aruut géeju woon na ci isaab mooy xam-xamu mathématique géeju woon na ci joxraaf li koy firndeel am naa mbokk mu ñuy wax murit sàmb wàcce na liggéey yàlla na ko yàlla yërëm dafa nuyu sëriñ saaliw ni ko damaa war a dem fu ñuy wax France ci bu ñuy wax Nice. sëñ Saaliw ni ko. Hmm. mu ni ko waaw ndax foofa de dafa rëb lool. ma bëggoon nga ñaanal ma bu baax Mbàkke. sëñ Saaliw ni ko yaakaar naa maa la gën a xam niis de. loolu jaaxal ko mu jàpp ni sëñ Saaliw dafa nekkoon. sëñ bi ni ko sàllaaw demuñu fa. waaye ci xam-xamu juxraaf lañ ko xamee. daal ni ko noo defan noo def ak doxantuwaayu xong nopp yi ñuy wax promenade des Anglais. yi la ko sëñ Saliou wax mu ne ko soriwu ma de Mbàkke fa laay doxantoo Saliou ne ko boo ko weesoo yaa ngi jëm ca seen dun wa ñuy wax Île de Corse soo jaaree ca bëj siin nga Marseille nga jëm soo jaaree ca seen kanam jëm Paris yaa nga jëm ca xeeju ndam wa ñuy wax Arc de Triomphe soo jaaree ca bëj gànnaar ga yaa nga jëm Toulon mu ne ko Mbàkke ndeke nii nga xamee réew yi sëñ Saliou ni ko li ñuy wax géographe géographie mm-hmm. dama ciy xuus man Saliou ba mënuma cee wax ak ku ma dégg motax fu ngeen ma fekk ma saxo nopi waye geejju na ci lol kon xam-xami jaww ak dekk ni ko luma xamone la serigne Abdou Samad mbacke mu serigne Soy bu moo ma nettali nee mhm. na amerique naa serigne jëndal euh Saaliwu café gu ñuy wax Santos andil ko serigne saliw jox ko hadiya hëddiya nee na mu ni foo ko fekk fàggoo ma ko waw mu ni ma rew mu doy war moy amerique xana xamoni la fa dajé lepp fukk ak juroom ci témèr bu nek ñoy doomi rew ma fa fek bax mhm. mais 15 ñooy doomu Amérique ci originaire ah, d' Amérique ni nga ca des ñëpp de sàllaaw ay doxandéem lañ fa te ku ne xam na ni Amérique melting pot la ñëpp fa daje réew yëpp mu ni ko nag waaye café gii nga ma andil mu ngi bàyyi ko ci réew mu ñuy wax Santos moo ngi ñu tuddee ko Santos ci réewum Brésil wax ko ni ko jawwuk Brésil ak jawwuk Côte d'Ivoire ñoo yem ci taw bi ni mu fay wàccee ak jawwuk Gabon moo tax seen dëkk yooyu muy taw lu bari kakaawoo yomb faa kafe gi nii di ko ci wax yoo xam ne lu rungele te xóot ci xam-xam Serigne Saliou Rafsanjani jiite woon Iran seet si na ko 1993 ànd ak la délégation iranienne bi nu ñëwee dañoo indi traducteur bu doon traduire la langue perse bi ñëwee ci sëñ Saliou wax ci forsaan ba noppi mu leen ciy tontu bu mu jigi ñoom ñu réer ci langue ñu ne ko yow bi ngay làkk mooy ba sunu maam ya déggoon mhm. kooku mooy Serigne Saliou man mii di wax yóbbul naa ko tubaab bu tudd Daniel Garcia Carillo espagnol la maa ko dugal ci lislaam tuddee ko Seyduna Muhammad keroog bi nu àggee espagnol bi di ñaanal Serigne Saliou daf maa wax ni ma Abdoulaye dile a nuestro líder que yo estoy profundamente emocionado ah, dile también que estoy muy honrado para estar con él yo le deseo una larga vida una salud de hierro para obrar para sempre para su padre Cheikh Ahmadou Bamba dama wax ni ma am nëgte am na ndam waxal ma Serigne Saaliwu ni mang koy ñaanal wér ak fan wu gudd mu agale liggéeyu baayam ma bëgg wax Serigne Saaliwu sallahu luñu min la limi wax amin lañ ci tond amin ca laa ni kon wenn lamagne wu ko amul soxla wulu traducteur Serigne Saaliwu architecte yi dañ daan ñew tracer ba nopi mu rectifier len ci tegginam rafet wa bindaatal leen nii nii ngeen koy tracé Serigne Saliou 15 daara la gor bu ci nekk moo ko gor moo ko defaral boppam tracel ko boppam te architecte bi gën a rëy bu ñëwee yéemu euh, Serigne Salih ci xam-xam bu yaatu bi Cheikh Béthio Thioune radiyallahu taala anhu yàlla na nu yàlla fayal Cheikh Béthio jàmbaari Serigne Saliou ju ko liggéeyal te làq ngërëma lu wér Cheikh Béthio dafa dem ba Paris mu visité arc mu visité euh, Tour Eiffel Tour Eiffel mooy mu monument bu rëy bi nekk Paris mu xool ko ba ñëw di ko nettali Serigne Saliou ni ko Mbàkke day Tour Eiffel lu ma yéem la bërëb la boo xam ne adduna bépp ay daje di ko seetaan ay millions nit ñoo koy visité di ko wax ba mu yàgg Serigne Saliou ni ko seex bi mu ni ko Mbàkke mu ni ko sàllaaw maa la gën a xam Tour Eiffel day daal ni ko sàllaaw bu ma neexoon mm-hmm. ma wax la Gustave Eiffel mi nekkoon architecte bi ko defal wax la kañ lañ ko defar wax la lu tax ñu defar ko mhm. wax la ñaata bulon moo téye Tour FM keroog Seex Béthio dani ko sob rek a ma ci dugal mbaayi Mbàkke yow kenn war ta wax lenn lu jëm ci xam-xam sawet sa ndax ni ko Serigne Touba summikoo ci moom ci xeeti xam-xam yépp Serigne Saliou da koo boole woon kon daal tudd ci njàngam ak askanam ak gane addunaam njaareem la feeñe 1915 ama jal sa sin 1333 ci gàddaay gi sëñ Mouhamad Lamine Diop dagana la sëñ Touba jox tur wi tudde ko a saalih mooy ki yiiw kii le turu yanant bi la moom lañ ko tudde muy jëmm joo xam ni foofu lañuy ñuy tënk askanam ak njàngam ak xam-xamam bu yaatu ci fànn yépp ba li ci des nga ñëw ci yaa maalikal mulk mulki yaa man jàlla an xawadi irham jami alwara irham الحمد لله الورى يا ما محوت ما خلقها وخل من درين بيجي حفظ المن لا يخلى جاء مطمع جفي تناكو ما جوي سما سرين بل سرين سال مبكي شيء أدنى يا كمان جوي مطمع جفي تناكو ما جوي سما سرين بل سرين سال مبكي Cheikh Abdoulaye yaaka maa njooy Serigne Saliou Mbacké ku gisoon ci xol mu gis la koo bu na du tax mu ñor la Serigne Saliou Mbacké ñu ko amoon te ñàkk ko moo tee ñu fa mu tee ba fekk ko Serigne Saliou Mbacké ñu ko ñamoon sama sëriñ ñu ko ñamoon ñu ko ñamoon ñu ko ñamoon mu ñam leen koor mën naa tee ñamet du tax mu saf leen Seex Saalu Mbakke ëttam ba xayam nga ku ñu ku baax jooy ku yiw ka dem na ëttam ba xayam nga day jooy xayam nga ku ñu ku baax jooy ku yiw ka dem na bismillah euh, ñu ngi ànd ak soxna May Mbakke ak euh, waajuram di aja Daba Diop Serigne Fallou Xaya Aram Lam ak uh, Ndeye Marème Ndongo Lam di samay doom nekk fële ca Espagne uh, kii ñuy waxtaanee moo ne woon jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom la ku tedd ki defoon ca mag ja mm-hmm. uh, kii ñuy waxtaane mooy juróomeelu xalif général des Mourides bala ñoo ñëw ci digganteem ak ndaw ñi dama bëggoon ñu ñëw. ci digganteem ak ñi mu bokkal Serigne Touba ndax ku ci nekk yaakaar naa ne liggéeyal na la ba nga gërëm ko Ablaye kooku mooy Serigne Cheikh Amar bu TSE. dafa am tuuti e, soxna moomi Bousso mi woote woon sànq dafa ne moog doomam sëñ mbaalo na la buggaan jox seen numéro ne am na adde juñ la ameel Badia Souleir moom it di taalibe sëñ Abdou Khadir. moom itam tubaarkalla woote ak soxna mbenn Daaru Salaam kenn la ci sëñ Abdou Khadir soxna Waaloon sëñ Abdou Khadir nee na musta woote waaye nee na tey ñaari bàyyi ñu ko séq ndax moom dafa jege sëñ caariw jege sëñ Abdou Khadir moo tax nee na mi ngi gërëm gërëm plateau bi yëpp waaye nee naa ma wax la ne plateau bi nag tey Cheikh Amar laa fi toogal kenn tudd sëñ sëriñ caariw te indiwoo Cheikh Amar waaye doy na rek ku ñuy wax Ousmane Ngom moo doon meeru kees mhm. sëriñ Saaliwu la jébbalu mhm. mu xëy sëriñ bi yónnee ko ni ko bu mu yendu kees na ma fekk si ne tuuti Ousmane Ngom ñëw fekk ko ci xay gi nuyoo moom ni ko dafa am réunion bu rëy bu am kees te maa koy maa maa koy jiite damaa bëgg a dellu mun ko loolu laay bañ mu fekk la fa Ousmane Ngom raam toog sëñ bi dugal ko ci benn néeg ni nañ ko indil añ ba mu añee ba noppi mu yónnee ko benn rajo bu ñuy wax transistor ni ko nañ ko ko taalal ñu taal rajo bi ñu ni dem Demba Diop Abdou Ndi tax fay rey na ko ca mairie Kees mu sànni palto ba daw ñëw ci borom ngot borom njàpp dal borom xabaat borom njurul borom dooka borom xayga xaaj borom nit ñi mu ni ko loolu laa doon bañ ma fekk la fa demal te lépp bépp soxla bu sëñ caali bu yëg yàlla sama borom saafara ko kooku mooy lab daal bi waaye nag ab lay Lam dafa am fu mu juñ junj léegi nu bëggoon nga laal ko moom rek lañu mës a dégg nen ne ni maa ngi liggéeyal Serigne Touba waaye yor naa fukki milliards maa ngi fukki milliards ñëw leen lu ngeen ma jox ma def ko ci yéen ah. ni njabootu sëñ Bamba gi bu ma leen jiitoo baraw leen bu ngeen dikkul ma taxaw néeg leen allahu akbar bu ma leen déggee bu ngeen ñëwul ma dëpp waaye du ma tàggoo yéen mukk macha allah kookoy kookoy euh, foofu nag laa bëggoon nga dugal lu fi ci Ablaye ji ñu ne ko ci Sëriñ Saaliw ak i bokkam waaye Cheikh mat tey ma nga ca Allemagne Samuel Sarr ngi may déglu moom it sëñ bee ko defar ak Cheikh Béthio mi nga tudd ci léegi tey Cheikh ne tey taal na télévision beeg rajo bi ña ko ko taal ca Allemagne yow rek lay déglu. d'accord jërëjëf euh, Amadou Ly Diome journaliste mu ngi ànd ak ñun kon euh, Ablaye ñu ñëw rek ci laaj bi. diggante Serigne Saliou ak njaboot gi mu njabootu seexul xaddim gi nga xam ni ñoom ñoo bokk ku tedd ki sëñ Modou Moustapha mii ka ca bopp ba di ki njëkk wuutu ku tedd ki bëggante woon nag moom bëggante boo xam ni jéggi na dayo sëriñ Saalix li gën a yéeme ci moom kone xam na ni baykat bu mag la woon cultivateur boo xam ne li mu bay ci àddunaam amul ku ko mës a bay waaye sëñ Saalix door na ay bayam 1931 32 nekk ci liggéeyam ay toolam di ko def ba 34 ba ci jamonoy 38 la am bis mu woo mag ñi ñu koy topp tool gerte gi mu tëdd ci njoowaan bi di leen xool ñuy defar gerte gi di waxtaani sëñ Tuubaa ba àggal daal di ko ciy jox ñetti doom ni ko mbàkke nga barkel lam ca teg mooy gulee tay ma mus sama mbayu bopp gulee tay ma mus sama mbayu bopp ñu ne ko am ah, mbàkke daawoo ko mus mu ni sañuma ko ku fi nekkal sëriñ Touba lu ma liggéey jox la ko njabootu sëñ Touba gi la daan liggéey di leen jox wut leneen lu mu dundalee njabootam ngir bëgg gi bëgg njabootu sëñ Touba gi. doore ko ci magam sëñ moodu Moustapha seen relation sëñ moodu Moustapha nee na ko yow rek laa mës a dégg ku sëñ Touba ni doomam loolu kon day wane relation bu rëy bi amoon ak sëñ Modou Moustapha. ki mu ko tuddee di sëñ Modou Moustapha sëñ Moustapha Salih xam ngeen sëñ moodu Moustapha ko feral defar ko lépp ah, diggam ak sëriñ fallu noonu la demee sëriñ Fallou wax na alaaji baara doomam xam nga alaaji baara da daan dawalal sëriñ saaliwu daamaram am bis sëriñ saaliwu woolu ko bi mu koy wàcce wax ko ni ko wax ma loo bëgg ma defal la alaaji baara ni ko bëgguma dara ñaan képp laa bëgg ci yow mbakke sëriñ saaliwu ne ko loo bëggoon ma tànnal la ko ci ñaan mu ne ko loo ma tànnal doy na ma mbakke sëriñ saaliwu ni ko xilaaf ak sëriñ tuubaa gii saa buy àgg ci loxol sët yi yàlla na nga njëkk alaaji a jóge fa ñëw ci baayam cheikh mouhamadul fadl sëñ fàllu ni ko nii loolu sëñ saaliw wax sama rakk ju tedd ji mu ne ko daf maa wax xilaaf sëñ bàmba gi saa buy àgg ci sët yi yàlla naa njëkk a séddu sëñ saaliw sëñ fàllu ni ko mook sama xilaafa booleel yépp waay ni ko xam nga sëñ saaliw nu mel ci nitu yàlla yee mu ni ko déedéet mu ni ko sëñ saaliw am kuuf la ni ko kuuf mooy koo xam ni lambi suñu borom bu tëggee ko ne di kañu dafa am teggin du yëngatu waye lamb ji lu mu guddee guddee mooy ub lamb ji lu yag yag moy ub lamb ji sëriñ Bamba mhm. koku mo serigne fallo ko seeral lol magam ju bax ji digg bëgg Cheikh mohamedoul Bachir da ko daan fekki ba sal bëgg lol Cheikh mohamedoul Bachir fonk ko lol def ko serignam motax domam ji fi nek tay di serigne Touba di serigne muntaka yalla fi yag te wér ne xamna relation ak sëriñ Saliou sëñ Saliou bëgg na ko lool ko yu bari ci ay liggéey sant ko yu bari mu def ko keroog bi sëñ Murtada wàccee liggéey moom la yebal moo ko dem taxawu ci bëgg ko lool moom Serigne Saliou bëgg sëñ Muntaxa moo tax sëñ Muntaxa bi mu koy woy jëmm ju tedd ji di sëñ Muntaxa daq jàng ci àdduna bëgg gi sëñ Tuubaa tax na man naa wax ba jeex du la wax lenn lu lay wan ni moo raw ñëpp te Mauritanie gi mu jaar naar yëpp mujj yéemu ci sëñ mun Muntaxa ngir xam-xam bu bari mm-hmm. waaye boo demee ci xasida gi mu woy Serigne Saliou dane ko hu uhibbuka yaa ومصلح حالنا صلاحك من أهل الإله مشاهد وصلحك معروف لدى الناس واضح حياتك إصلاح ودوما تجاهد مصالحنا في الانقياد لقصدكم ونظرتكم في الله غفلا تطارد ومع نظمك المطلوب في كل كائن وقد حسته في الله والله موجد نعم. سيد منتخى نينا أحبك بقنا له yaa cheikh yi yow sama sëriñ kon sëñ Muntaxa nee na sëriñ Saaliw mii sama sëriñ uhibbuka yaa cheikh yi wa musliha naa yow mi nga xam ne suñu mbir yëpp yaa ko yéwénal sëriñ Saaliw yéwénal mbir yëpp ñu ga ko léegi bi muy toog moo ni jox leen ma ndaw ñi ma defal leen la sëriñ Tuubaa daan def ca mag ña jooju nag wax ju xóot la mag ña ah mag ña ña sëñ daan def ca mag ña jox leen ma ndaw ñi ma def ko ci ñoom su ma ko yelloowul sax ma bàkkeeloo ko ci liggéey. wallaay ndeysaan. sa micro. te doo am alal maas bàyyi Cheikh Saliou. aywa kan nga bambaay. dëgg la waay. te bu amoon.

saaliw muñam ga woon ca moom maandoom ga moon ca moom sëriñ saaliw muñam ga woon maandoom ga woon ca taxoon suy xool di lamsal le wàcc muñam ga woon maandoom ga woon ca taxoon suy xool dilam sal de wàcc na njurul de wéet na tey ndooka de wéet na tey xaban de wéet na tey sëriñ Saaliwu ñibbi na sëñ bi waaw dañ mun way xas si dëkk mm. dañ ne ko dama laa sopp mm-hmm. yaa cheikh yi yow sama sëriñ wa musliha xaalinaa yow mi nga xam ne yaa yéwénal sunu mbir yépp ni ko salaaxuka fekk yéwénalu mbir ni nga mel nga xam sa lépp dafa yéwén min ahlil ilaahi musaahadu mboolem ñooñu yàlla ñépp a ko seet amul koy tudd tam am cër ci yàlla te du seeri ni sëñ saaliw léppam dafa yéwén wallaahi dëgg la yaa ngi may dégg mhm. ñaare sax turu yàlla boo koy liggéey faaw nga gént sëñ saaliw dëgg kon sa lépp nitu yàlla yépp seere nañ ni yow yaay yéwénal mbir yow sëñ Saliou daa di koy joxoñ ni ko wa sulxu ka sa jàmmi biir gu oyof ji nga yor sulxu mooy koo xam léppam dafa lewet nga xam ne sëñ Saliou tuut tànk yi ñoo nekkoon ay xaritam këram yi bu nu yekkee ci daara yi xale yi lañuy njëkk a séet mësta nangu kenn ku dóor xaleel ci këram ñépp la jaxasool ñépp la am ci ñoom yërmande daana wax ni ku dul yàlla mi sàkk jaam ñi ëppoo ma ci jaam ñi yërmande yërmande sëriñ Saalix àgg na ba ci mala yi ñi nga xam ne ñooy war fas yi dajale nañ fi addiyee dem ziyaare ko muy millions yu bari mu delloo leen ko ne defal leen ma ko ci toppatoo ma fas yi bu ñu am góom bu ñu gaañu bu leen leen dóor yërmande kese la woon mu ni ko kon wa sulxuka maarufun la dan naasi waadixun yéwén gi nekkoon ci yow ci nit ñëpp leer na nañ bi mel ni làmp ñëpp a xam yërmandeeg sëriñ Saaliwu dañu fàttali Sonacos yi mu amee problème ni ci sëñ Saaliwu taxawee fu mu fi mës a fekkee jafe-jafe am takk na millions yu bari joxe ko ngir taxaw ñu néew doole ay milliards lay joxe kon wa sulxuka maaruufu la dannaasi waadihun ni ko xayaatuka islaahun wa daw man tujaahidu sëñ Muntaxaa ni ko sa dund lépp yéwén la ta yow da sax daa iman ci di jihaat jihaat mënta weesu fukki daara ak juróom fukki daara ak juróom ay toni ceeb nga leen koy sooral te doo laaj état bu la dimbali doo laaj kenn lum la jàppale lépp nga koy joxe tey jii sëriñ Seex Saaliw mii ko donn dina àgg ci keccax gi muy jënd rek 17 millions la ciy joxe buñ la ko waxee da ngay mujj yii mu ci yàlla sëriñ Saalix nga gis ko kon mu jël ndonga yooyu def leen ci biir këram di def ci ñoom alquran def ci ñoom leer def ci ñoom xam-xam di leen tarbiye ci yar di leen tarbiye ci teggin di len tarbiye ci nango liggéey ci bëgg diiné ci jubal ci jang ci sammu lepp kenn dimbali ko ci wéttaliwukul kenn ku dut yalla di bay di dundal njabot gi mu am ci lu mat 15 dara yo xamni ku ci nekk mu lay téral ci teraangaam ma ngi ziaré ibrahima fay ci pikine mu bay serigne fay xam nga euh dañoo yobul serigne saliw liggéey dañoo dañoo am daayira bo xamni ndonga tarbiye yi lañuy wutal ay yéré dañuy wut ay ndimo ñaw ko ñëpp di ay tailleur ñu dajale ñaw ko ci seen wërsëg dajale ko di ko yóbbul Serigne Saliou maa ngi ziyaare sëñ Maxtaar Ngom sopp na bi sama doom nday dañuy dajale lépp di ko yóbbul waaye 2007 danoo yóbbul Serigne Saliou fukki junni yéere ak ñaari junni 12000 mbubb ñaw yépp jox ko Serigne Saliou mu ni lim bi nu mu toll ñu ne ko fukki junni la ak ñaari junni mbàkke Serigne Saliou daan ni alhamdulilah daan ni seen liggéey bii de ci laa yéege sama matug liggéey seen liggéey bii ci laa yëge sama matug liggéey daal dinaa leen nettali lu yéeme mu ne jamono yi 1945 bi sëñ Modou Moustapha door a ñibbi aljan booba jamono fukki ndonga ak ñaar rek nekk ci daara ji ma leen di jàngal la sama bopp ñu may ma saaku sumbulu sumbulu yooyu ñu daan jël di ko jëfandikoo di ko xéwloo saaku sumbulu lañ ko may e ñu may ko ci lu mat juróomi saaku mu ni biñ ko xéwloo ba noppi daggat ko ñaw ko ci mu am ci fukki mbubb ak ñaar mu ni fukki mbubb yaak ñaar bi mu ko joxee fukki ndongaam yeeg ñaar danoo bég ba dajaloo di ko ñaanal maam yàlla nga fi yàgg di ko ñaanal nee na ñaan yu tumuraanke ngir loolu ma leen jox jamonoy dox tey ba gën a jafeñ gën a lëndëm ngeen daje ci seen wërsëg jox ma fukki junniy mbubb ak ñaar yu nu ñaw ci ay ndimo kon sëñ bàmbaay wane ne liggéey booba nangu na ko fukk yaag ñaar da koo faye benn bu ne junni daal ni seen liggéey tey bii ci laa yëgi sama matuk liggéey booba mu ngi tàggoo 2007 ajjuma joojee la dëddu daal di ñibbi aljana kon sëriñ Serigne Saliou li sëñ Muntaxa wax ni ko danga daan jihaat daa iman sax ci bokk na ci ñi dàqoon na muñ ci kaw suuf sëñ Tuubaa bi muy woy euh, yanant bi sallallahu alayhi wa sallam dani ko lahoo min al xilmi maa lam yaxwi i jabalun laaqal aza fil baraya wa huwa sabbaaru yanant bi daana muñ muñin woo xam ne moo dàq muñ montagne li montagne yi dékku Moustapha leen dàq muñ dégg na lu nekk dangaa dof dañ laa da ngay njibar lu léegi Moustapha dégg na ko mu muñ tay ba am victoire ci àdduna bépp waaye Serigne Saliou loolu la doon ne ci moom jëmm ju mën a muñ la xanaa yëgoo ni Serigne Saliou kërug boppam gi sëñ Abdoulaye ko tabaxal li mu liggéey lépp da koo jeexal ci jaam ñi wutul woon dara ngërëmu sëñ Touba rek Serigne Abdoulaye moo ko tabaxal te ku ñuy wax Alaaji Ibrahima Ñang ca Mbuur moo jur ñoom Demba Sall Ñang mo jur ñom dabbus ñang ak mayib ñang ak maysa ñang ak saliw ñang ak lamine ñang mi jiitoon sambatu commerce de dakar seen bay alhaji ibrahim ñang bu mbuur mo ànd guddi ak abdullah hab ñi dem ci kër seigne saliw biñ ñëwee di sétsi alhaji ibrahim ñang fi mu tok di wax ak seigne saliw nek seigne abdullah ngi leen di dégg mu nan ko mbacké da melni sa kër gi xana bëggo ko soppi ni mu mel seigne saliw ne ko incha hmm, bëgg nañ ko dé way xamna dañuy bay ba jamono gëna neex nekke wax ja sëñ Abdoulaat dégg na ko bi ñu génnee da cee neexal alaaji Ibrahima Ñang ne ko yow mi fexe ba ma dégg bëgg-bëggu sëriñ Saliou tey ma dégg ko sama nopp dama lay neexal ba mu xëyee la yónnee ay maçon yónnee suuf ak ci lañ defaree këru sëñ Saliou gi diir bi mu fiy nekk wutut dara ngërëmu sëñ Touba diggam ak sëriñ son yi bu Mbàkke jug na seeti sëriñ son yi waaye sëriñ son yi bu ni ko Mbàkke mu doon ngaa toog ma ñëw mu ni ko yow li nga nekk yaa nu ko nekkal ñun ñëpp di jàngale alxuraan baal nu ñëw diggam ak sëñ Abdul Xaadir wax naa ko léegi diggam ak sëriñ Murtada noonu la demee gis nga seen màggal googu ñu toog ñoom ñaar nga xam ne sëñ Murtada fu mu daan demee tukki di tasaare lislaam dina jaar ci moom ñu tàggatoo. bëggante lool bëggante lool caatam moom la ko tuddee sëñ Murtada te moom tudde na ko doom tuddewaat ko doom pour wan la seen bëggante ñoom ñaar ak ni ñu jaxasoo diggam ak sëñ Abdul Ahad mi nga xam ni mooy léppam di magam di soppeem di xaritam. dégg naa sëñ Abdou samat mu sëriñ son yi nee sëriñ seex jaxate di seen mbokk ñëw na seet si sëriñ Abdou Lahad ndax ña sëñ Abdou sëñ Saaliw sëñ Saaliw ñëw na seet sëñ seex jaxate ndax sëñ seex jaxate moo daan wat lu bari sëriñ Saaliw sëñ Saaliw ñëw di fa watu mu wat ko ba àggal sëñ Saaliw ni ko xéewalu ndaw ko ndaa yeeg buso buso yi ndax am na ci kër gi di ko laaj añ mu ne ko waaw am na fi kay mbàkke daal di yónni soxna May Mbàkke mu sëñ Abdulaat mi mu yor mu dem fekk añ bi njëkk sotti ndabul sëñ Abdulaat la moo njëkk a sotti mu ne comme sëñ Abdulaat ak sëñ Saaliwu yem ñoom ñëpp sëñ Tuubaa la nu ko jox sëñ Saaliwu indil ko ndab li sëñ Saaliwu tibb ci ñetti tibb barkeelu ni ko tubaarkaala tëjaat ko jox ko soxna May takk ndab li ba mu dëgër mu yóbbul ko sëñ Abdulaat mooy añam ba mu ñëwee ni ko Mbàkke ndab li li ciy nuru lu ñu laal day xam naa sa rakk ju baax jee fa jaar sëñ Saaliwu rek daal ciy barkeelu moo ci doon barkeelu waaye sëñ Abdoulaat dañu bërët ni ko nga sëñ Saaliwu barkelu fii mu ne ko waaw mu jël juróom fukki junni ni ko maa la ko neexale yow mi fexe ba ma mus ci ndablu sëñ Saaliwu doon musay kon loolu defe naa alaaxa bu rafet ak ànd bu sori ak ñoom ñëpp bëgg sëñ Saaliwu xam nuru gi mu nuru sëñ Touba moo ko waral ñoom ñëpp dañ daan xool jëmmi sëriñ Touba ci moom ndax sëriñ Touba sëriñ Saaliwu da koo doon doon ko sëriñ Saaliwu ñi xam sëñ Touba maam Cheikh Rafal njàccaaru yoon wi Serigne Saliou nuyu si na ko ci juróom-ñetti atam boobu mu ngi ci daara ci bi mu ñëwee maam Cheikh Ibra Fall da koo tegal benn njoowaan sëñ Saliou nee na bi ma ci toogee samay tànk mënta laal suuf ndax boobu at yi bareegul nee na maam Cheikh Ibra Fall di ming rek naan ëskay ak a duróog ma jébbaloon ci moom Mbàkke Kajoor di ko wax baayam ba Serigne Touba nee na keroog bi muy dem da koo gunge wax sëñ Mortala Fall doomam nañ ko gunge nee na keroog bi muy dem jox na ko addiye joo xam ni sëñ Saliou ne mën nañ cee dund at bi ma ñëwee ci daara ñëpp a bég borom baax laa ilaaha illallah إلا لا ilaha illallah ku sopp ku Seex Rafaa la la Bamba fe Hare Cheikh de Cheikh Modou Amé Cheikh Cheikh Cheikh Cheikh saxal nu ci baatu laa ilaaha illallah bani dee Moodu Abdallah Cheikh Abdoulaye. xam nga lii tey. Abdoulaye Lam Abdoulaye. Bichri moom Cheikh Abdoulaye dama la bëgg. bi bi bi para bi plateau musta am. xam nga lu tax lii musta am. Serigne Saliou woo toll noonu. Cheikh Makhtar Diouf. day rewakaana akkan ma ngay ming. ndax léppam Serigne Saliou la. moo jël moo jël ak Cheikh Mansour Diouf moo jël sa moo jël président Abdou Diouf baayam. indi ko mu yendoog sëñ Saaliw fanaan ak moom da dañoo dugg foo xam ne fii tey réew mi riir na ndax njabootu sëñ Bamba gi Cheikh Rafaal da leen gëm te Cheikh Rafaal dafa yemalewul lenn ak sëriñ Touba moo tax bi nga duggee ci Serigne maa ngi nuyu ñoom Ndiame Diop ak waa kër Serigne yi. ba nga ba ak ñoom Moutiane. di nuyu waa kokki bi nga yegsee ba ci sëriñ Abo mi nga xam ne tey mooy sëñ Fallu sëñ Abo xalifa sëñ Fallu baayam moo feeñal maamam maamam moo feeñal baayam loolu sëñ Abo rek ko am Cheikh Rafaal maamam moo feeñal sëñ Bamba maamam waaye sëñ Fallu baayam moo wane sëñ Bamba moo wane Cheikh Ibra ndax moo ni soror bi gën a gudd sëñ Fallou ni Lamp Fall laa ko tudde 45 la sëñ toog ci xalifa gi ni kur bëndëng rafle meng jiba muut dasa bandaar juróomi soxna tànk Fallou wanil wanil te doo fiy jóge ah tey la tey la tey jërëjëf tey la tey euh, euh, Ablaye Mambar euh, moom sëñ Fallou est-ce que woote na léegi waa Touba ni nga ko waxee rek kenn nelawul tey sëriñ Baara Laxat sëñ Baara yooyu jàmbaar jooju ak sëriñ Bas Xaadim Awba eh. woote nañ Euh, sëñ Saliou Thioune itam di xalifa Cheikh Béthio. yaakaar naa ne ku dugg kër. sëñ Saliou bu sa Tamba da nga fa fekk da nga fa fekk Cheikh Béthio. Euh, ñoom ñëpp woote nañu tubarkàlla. dañuy euh, indi nga ah. Fat Abdou ak Cheikh Sarr dañoo amoon yenn question rek laata ñuy continuer waaw nañu laaj ba pare ñu dellu si waat xam ne xale yi mujjee juddu ñoo bëgg gën a bëgg Serigne Sall ñoo xam ne États-Unis dëkk bu nekk ñoom xati Salam Abdou Hakim Diop kenn ku ci nekk yaa ngi fësal sa cofeel ci Serigne Sall say xale lañ yoo xam ne seeni at matul sax ñaar fukk muy wane ne Serigne Saliou moom la ñu mujjee gis ci doomu Serigne Touba waaye ba tey moo des ci sunu ay xol li ma bëgg a laaj sëñ Abdoulaye Diop Bichri mooy diggante Serigne Saliou ak alxuraan ndax dañu gis ne gan lu mu màgg màgg li gën a màgg la lay jox muy alxuraan. ma bëggoon Serigne Saliou ak alxuraan lool laa bëggoon nga leexalal ma ci. nga laaj bu am solo Fatou foofu ma terminé li ma doon wax. jërëjëf Fatou. dañ maa siifoon ndax ab Ablaye sekk daa baax te xam ni mënatu ko muñ. Euh, mu neex lool li mu sikkar nu ngi koy sant di ko ñaan. man Cheikh Ibra Fall lay sama rabu ndëpp boo ko tudd rek ma daan. Ah. waaw léegi. dama doon wax ni maam Cheikh Rafal bi ko sëñ Saaliwu nuyu see keroog wax na ba ni ba may jublu ci sëñ Tuubaa Mbàkke Kajoor ko fekkoon melo woowa nuroo nag wu wii may gis lool ilaha illallah di koy jox teraanga ju bari waaye sëñ Saaliwu foofa maam Fall nee na ko ñaanal ma sëñ Saaliwu daal di tàll mu tàllal loxo jox ko sëñ Saaliwu ne ko ñaanal ma may liggéeyal sa wéejur wii di sëriñ Touba ba ëllëg sama xabru di liggéeyal sëriñ Touba. maam Cheikh Rafal dani sëriñ Saliou ñaanal ma may liggéeyal ko tedd ki ba ëllëg sama bërëb muy sama xabru di liggéeyal ko tedd ki. loolu mu ngi feeñe keroog bi sëñ Modou Fallilou Fall sëñ Modou Aminata Fall di sëtu maam Cheikh Ibrahima Fall mu sëñ Modou Moustapha Fall di xalif général des Baye Fall. ñu jëlee addiya ju toll juróomi million ci bërëbu maam Cheikh Rafal liñ fay sànni di ko ziyaara. moo dem ziyaare ji sëriñ Saaliw jox ko ko sëñ Saaliw fàttali ko loolu ni ko sàllaaw dey sa maam ja na ma ba ñu gisee naa ko ñaanal ba ëllëg xabroom di liggéeyal sëñ Tuubaa defe naa xabru bii génne ay million di ko joxe addiya liggéey ba kon nangu na waaye nga laaj lu am solo dafa laaj ndaw ñi te sëriñ Tuubaa dénk ndaw ñi nañ mokkal alxuraan sëriñ Saaliw li mokkal loo alxuraan amul ci àdduna waxuma senegal àdduna mokkale ci daaray sëriñ Saaliw amul ci àdduna fu ko am tey boo duggoon Touba tey bu la neexee nga dem fanaani Touba ni suba laa bëgg ñu bindal ma ab kaamil tuut tànk la koy bindal ba mu jeex te ñoom ñëpp Serigne Saliou woo ko def ci ñoom wax naa la fukki daara juróom mu daan jàngaleel boppam wut ay jàngalekat ñuy jàngale mu leen di dundal moo leen di xottil lu nu sol moo leen di jox lu nu lekk moo leen di jox lu nuy naan moo leen di dëyal ci ay bërëb bu ñu feebaree moo leen di faj mooy def ci ñoom yaru diine mooy def ci ñoom alxuraan ba ñëpp mën koo tari jàngal leen ba nu am xam-xam di bind ay téere yoo xam ni ci araab da ngay jàpp ni Arabie Saoudite lañ ko doon taalifee te ñëpp Serigne Saliou ko réalisé. kon li mu defal sëñ Touba ci xaritam ndax sëñ Touba nag moom moom alxuraan. nee na yàlla moom loo na ma alxuraan ci maa ko doon na ci yanant bi ci maa ko jënde ci yàlla ci man la ko yàlla may cadeau maa moom alxuraan. alxuraan it fa ko Serigne tegoon fa la ko Serigne Saliou teg dundam gépp alxuraan la. kenn mës ta nuyu Serigne Saliou lu dul fekk nga ko mu téye kaamil bi ci wetam moom lay jàng guddi moom lay jàng bëccëg moom lay jàng ngoon moom lay jàngloo ci ay këram te loolu da ko doon ci Serigne Touba ndax sëñ Moussa Ka bi muy jooy sëñ Touba 1927 dañuy mbaakool di bind di ko yot alxuraan bawol di bind di ko yot gànnaar di bind di ko yot muy jëndi mool di carax soo féetewoo di ko bindal mu féetewoo di la dundal. Oh. soo koy bayal di ko bindal mu sàkk ñuy bay di la jox. ku de ku deeti fob junniy dërëm mm. di def ci yow mbaati gëléem te def la koomum jamonoom ku ko fi xam na ma ko wax alxuraan la daan jël moom sëriñ Touba di ko sëf ci ay néegi boppam di ko teg ci ay lali boppam sëriñ Touba nee na képp ku bëgg am njub te wan ginnaaw alxuraan loraange rek nga yam sëriñ Touba nee na képp ku jàpp ni jàpp nga lu gën a dëgër alxuraan ci waru nga nekk alxuraan mooy urwatul wusqa mooy buum gu dëgër ku ko jàpp raw nga alxuraan sëriñ Saliou da cee def lu kenn deful xam ngeen ni daara ju nekk am na ko moom sëñ saaliw mu teg ci ay jàmbaar ñu koy jàngaleel alxuraan ba tey li ko mokkal ay junniy junniy ndonga la ci àdduna bi nga xam ni tey alxuraan daara yi sëriñ Saliou joo dem soo ko soxlaa ñu bindal la ko kon li mu defal sëñ Touba ci alxuraan sëñ Saliou rek a def lu toll noonu yàlla nu yàlla fayal sëñ Saliou alxuraan daal boo ko tuddee mooy xaritu sëñ Saliou fi mu ne ni ko nit ñiy jooye la ko alxuraan di jooye mhm. mooy xaritam mooy soppeem moo ko taxawu taxawu ñu koy jàng def ci ci alalam loo xam ne kenn mësu koo gis ci jamono sëriñ Saaliwu dafa yàgg liggéeyal sëñ Touba xanaa xamoo ni ci njabootu sëñ Touba gépp moo ci njëkk a joxe alalam mu dugg ci màggal gi bi mu koy joxe juróom-ñetti at la am juróom-ñetti at bi sëriñ bi di santaane ndigalu màggal gi booba jamono sëriñ Saaliw daa amoon xar moo xam ne xar mu ndaw la am am am mbuxur xar mu ndaw rek. moo xam ni euh, soxna. Njaay Jaxate moo ko joxoon addiya xar mooma bi mu déggee ñu ne sëriñ Touba joxe na ndigal li Seex Balla Faali Jeng la ni sama xar moom bu mu fi fanaan nañ ko jox ku tedd ki mu dem ci màggal gi moo ci njëkk a joxe alalam moo tax Serigne saaliw li mu nangu ci xilaafam kii mus ko gis lu nekk dikkal na sëriñ Saliou waaye bëggul woon dara xam nga savant bu dëddu àdduna mooy Serigne Saliou milliardaire bu dëddu àdduna mooy sëriñ Saliou loolu la koo xam ne tey bu jëloon mbubbam mi muy sol mm. bu ñu waxul ni ci sëriñ saaliwu la jóge boo demee di ko jaay ci marché bi buñ ko xamul mën nañ koo bañ a jënd te ki mu jóge ci moom bu ko neexoon jëndum réew ndax ay milliards la am waaye dëddu àdduna sëriñ saaliwu mooy docteuru docteur yi laaj ko Steven Seagal ciné cinéphile yaa ngi may dégg ñu xam film Steven Seagal mooy acteur bi ñuy wax Nico dafa amoon feebar boo xam ni c'est une maladie sudorale moo xam ni dafa am problème de sueur pour mu ñàq transpirer du ko mën loolu ko jaaxal dem na ci fu nekk ba ñëw fii ci Sénégal bi mu ñëwee dem Touba Serigne Dan wax na ma ko nee na maa ko yóbbu keroog bi mu àggee ci Serigne Saliou ci jataay bi mu toog di ko jàmbat tawatam ji nga xam mënatu la ñàq fi sëñ saaliwu toog la ko jox kaasu café muy naan kafeem di naan kafeem commencer di ñàq ci jataay bi avant muy jóg dem naa ba gis autographie am fi mu bind moom Steven Seagal mu ne li ma fekk dimension spirituelle bu Serigne Saliou fekk ma ko ci menn réew daal ni man ci diine bouddhisme laa bokk jàng seen aar bi ñuy wax jiu jutsu xeex la nga xam daa boole ay kendoog ay judoog ay karatéka yépp la boole karaté mu ni dimension spirituelle ma fekki Serigne Saliou amul ci menn réew mhm. moo ko faj kon Serigne Saliou mooy docteuru docteur yi Sëriñ Saaliw mooy savant bi daan wax tuuti xam nga savant di wax tuuti woyof toyyu modeste am humilité dinaa la ci indil benn xissa daa am ku ñëw nuyu ko daa am ñëw nuyu sëñ Saaliw lii tam ko dégg sëñ Abo Mbàkke nekkoon fii ci ñaari tali nekkoon fi imaam di ko baax di mbokk benn tali dafa ñëw sëñ Saaliw ne daa am ñëw nuyu ko sëñ Saaliw jàmmanteeg moom ni ko sëriñ bi na nga def kooka ni ko ah mbàkke ku toll ni yow di ma woowee sëriñ de rëy na ci man man de ndonga laa baatu sëriñ ëpp na ci samay nopp nga ma koy wax sëñ Saaliw ni ko sàllaaw man maa baaxoo du ma sàllalu kenn ku ma nuyu sëriñ laa lay wax ne ko dama cee mës a am bis mësuma koo nettali waaye tey dinaa la ko nettali li tax ma koy def ne ko ba may nekk mbuur ca jamono yu yàgg ya ay jamonoy quarante et nee na jamono booba damaa mës a def kaala naar kaalaw naar mooy kaalaw ba sa gët yi rek mooy génn nee na ma gàddu sama kurus di dox ci tefes gi di wird ndeke nag comme booba damay door a sanc ma dëkkuwaay ya foofa nee na ndeke sori naa sama kër ba mënatumaa gindiku ñëw ci sama këru bopp sëñ Saliou nee na ngelaw lu am tax mënatumaa gindiku ma ni du topp mukk ay njort naa dem laajte ndax yàlla nee na bu ngeen xamatul dara laajte leen sëriñ Saliou nee na ma ni naa dugg ci kër gi laaj ndax siiw naa do euh, njabootu sëñ Touba bokk xëy na suma ma laajtee dina am ku ma ko mën a leer ñu dugg ci kër gi ni ne asalaamaaleykum jenn jëmm joo xam ne sëñ Saliou rek la gëm tëdd ci kaw njoowaali xàmmeewul ni sëñ Saliou moo koy nuyu wallaay mu ne ko waaleykum salaam mu ne ko kër Saliou Mbacke laay laaj xam nga waxul sëñ Saliou Saliou Mbacke daal di sàllalu jën jënni bërët poñe ko eh. xamu ko poñe ko ni ko yow kooku daa morom ci suuf si ka koy sàllalu kooku bokk njabootu sëñ Touba di sama yaakaar tey ëllëg nga koy sàllalu mu ne ko maa ngi tuub de kër sëñ Saliou fan la te xamul ni moom lay jëm jëmm jëndi ko doxal ñu dem ma wan la ko. waaye boo taxawati fii sàllalu turam loola metti maa la koy def wallaay ndeysaan sëñ oh. Saaliw nee na ma daal di koy topp ni ko sàllaw tuub nañu wallaay ñu dem ba àgg ci kër sëñ Saaliw mu ne ko kër gaa ngi sëñ Saaliw nee na ma ne ko jërëjëf ba tey waxu ko man la mm-hmm. ndax su ko waxoon man naa sa xaru ji ba tey waxu ko ni man la defe naa loolu mooy humilité mm-hmm. loolu mooy wàcce sa bopp am na taalibeem bu ñuy wax Moussa Gueye dañ koo may jabar jabar ji di tubaab bu ñuul yi xew rek jàng nasaraan rek tax nga jàpp ni yu bari comportement daal tubaab bu ñu mu ànd ak soxna si dem ziyaare sëriñ Saliou ba ñu jàmmantee ba génn ni sëñ Saliou dëddoo àdduna ak ni muy solo loolu jaaxal na soxna si mu ni borom kër gi nga xam ne sëñ Saliou rek la gëm waaw sëñ bi moom mën leen ko wax mu sol yére yu gën a taaru yi li muy sol nag rek borom kër ga ni ko yow da ngaa dof kii di borom jamono ngay wax wax yu dof yi ci mbetam yow may naa la sa baat mënatu noo nekk daal koy fase mu daal di dem ba jëmmi jamono Moussa Gueye mu ñëw di siyaare sëñ saaliw mu jàmmanteeg moom ni ko walla hmm, ana sa soxna sëñ fi àndaloon te mu yaru lool ne ko bu ma ci nëpp dara nag ma wax lépp hmm. anam mu ne ko Mbàkke yeewi woon naa di li tax ma yeewi ko daa ñàkk yar ca colit ngi la doon jéem a sikkal ba ma far naa ko bàyyi sëñ Saliou ni ko ëpp naa def hmm. su dee dangaa bëgg sama ngërëm ak loola neex bis ni ki tey jox naa ko ndigal demal jëli jiwaat ko jox ko xaalis bu bari ni ko boo demee na ñëwaat ci kër gi muy muy sama ndigal boo bëggee lu ma neex te jox naa ko ndigal daf maa yéene sama yére yi rafet saa bu tilimatee da ko dem fóot jox naa ko ci ndigal moo ko gën a oyof ci àdduna sëriñ Saaliwu li mu yore woon ak ni mu wàccee boppam jaxasoog ñëpp da koo donn ci yanant bi alayhi salaatu wasalaam sëriñ Saaliwu mooy xaritu tuut tànk yëpp boo demee ci këram moon di fop di waxtaan ak ñoom nu koy wéttali ci jataay Cheikh Sarr kookoy borom jamono. kookoy borom jàmm ak jamono borom yërmande gi. Uh-huh. Uh, ñu ngi jot bataaxaluk uh, Serigne Saliou Thioune. waaw di uh, xalif général kullu cantakun. Uh-huh. mi ngi rafet lu jotaay bi di bég lool. sànq li bokk bokk na ci lima njëkkoon bëgg laaj moom mooy nekk multimilliardaire ba pare dëddu àdduna. waaw waaye sëñ Bichri. damay dégg mag ñi di wax naan wàllu yàlla yi am na ñuy jamono yoo xam ne dañuy daje fa ñuy daje. moo xam aktaab yi la. waaw fardu jaamio yi. walla euh, nga nekk euh, koo xamante ni yaay jiite jamono. xut xutbu samaan. waaw ci ñooñu bu ñu amee seen dajaloo ba ñu dajaloo. dañ leen di xamal ne lii mooy natt yi war a wàcc ci àdduna bi. waaw ci weer yi. Mhm. ci semaine yi ci at yi. waaye am ci ñoo xam ne dañ daan jël àngu natt yëpp. te saali Saliou Mbacke. Mhm. bokk ci ñi daan wax ne daan na àngu. yenn natt yu naroon dal ci askan wi waxuma askan wi sax waxuma doomi aadama yi waaye mala yi bëgg naa nga dikkal ma ci ni mu doon àngoo di dëkku li nga xam ne moom moo di euh, natt yooyu waaw loolu mooy baatu li nga laaj xutbu xam nga xutbu zamaan moom la ñuy wax pôle pôle de son temps xutbu zamaan mooy koo xam ne jamono jëpp picc yi sax seen communication da ko koy yëg duñu deflante dara te tàgguñu la loolu nag boo ko waxee koo xam ne jàng mu tuuti la ndax fi mu nit ñi seen problème mooy ñàkk a jàng tasawuf tasawuf day xam-xam bu xóot da ngay jaar ci ñoom Cheikh Abdul Wahab Saharani xool ñoom Abdul Wahab al Mursi xool ñoom Imam Ghazali xool ñoom Ibrahima Dasuqi nga jàng leen nga xool ñoom Maxruful Karxi ngand yooyu nga xam ni boo taxawee seen barke woo leen sa aajo faju xool ñoom Imam Bustami xool ñoom Isaab nu Tayfuur xool ñoom Imam Junaydi Muhammadul Hariri Cheikh Ahmadou Tidiane Cheikh Abdoul Qadir Jilani ngande yi ngay dem pour xam li xam tasawuf nga xam ni cër bu ne yàlla may na ko ay nitam xam nga yenant bi sallallahu alayhi wa dafa wax ni xarnu bu jot xarnu mooy téeméeri at mhm. seekal bu jot yàlla dina am ko muy sàkk def la ngay xut bu zamaan mu dénk la lépp di mu jaddit bu yeesal lépp mu jaddit yàgg na am ci Suleymaan ibnu Malik bi mu wàccee liggéey ki ko njëkk a wuutu Omar ibnu Abdul Aziz la tudd mhm. kooku la ñu wax ni mooy premier mu jaddit bi ñu gën a ràññee ginnaaw moom al askandari nekkoon na ko ginnaaw moom imam Safii radiallahu anhu nekkoon na ko mhm. ginnaaw moom imam Ghazali radiallahu anhu moom yanant bi misaal na ko te ganeegul àdduna mhm. loolu day jël temps du ma ci dem waaye yanant bi misaal na ko ci rañaanam te booba ganeegul àdduna ndax bu ñu fàtte ni ruu dañoo bokk jamono bu leen yàlla di amale jëmm yi mu koy tëgg deen wàcce la époque yi di wuute moo tax ku gën a set gën a jege yàlla hmm. man nay fàttaliku ko junniy at la xewoon loolu nit ñi faw ñu xam ko yàlla nag xutb bi muy dénk jamono picc ya la ñuy def da koy yëg jën ya ca géej ga seen communication bu ci deen delloor moroom mi da koy yëg kooku la yàlla dénk jamono ji Sëriñ Saaliw daan nekkoon xutbu zamaan bu amul benn werante sunu borom dénk ko lépp ci jaam ñi moo tax mu dawal yërmande jooju nga xam ni tey Sëriñ Saaliw mësta nangu kenn loru te lee wanal ni xutbu zamaan la mhm. am na kilifa diine ku dem seeti ko damay bañ tudd léegi tur dem seeti ko xam naa ko nag mhm. ànd ak délégation ba ñu demee di ganu sëriñ saali sëriñ saaliw jox leen ndabu xéewal ñu xéewlu sëñ saaliw yónni ndaw la ni ko nee leen samay gan lañ ñoo bokk islaam gane giñ ma gane si dafa maa neex ba lu ñu fas ci ndab li dinañ ko am luñ ci ñaan yàlla dina leen ci fekk lu ñu ñaan ci ndab li yàlla fekk leen ci mu ñëw ni ko sëriñ Saaliw de nee na lu ngeen fas ci ndab li di ngeen ko am mu laaj ndaw la ni ko moo ko wax mu ne waaw mu ne xaaral ma laaj ko bu nee moom la ma fas ci bañ a dem ëllëg sawara dëkk ni sëriñ Saaliw damaa dégg ñu ne yaa wax ni ndab li nga nu jox ñu ciy xéewlu luñ ci fas am ko mu ne ko sikkuwul samay gan ngeen ma leen koy terale maa ko wax lu ci waaye ñaan yàlla dina la ci fekk mu ne ko kon fas naa ci mbàkke ëllëg bañ a dem sawara mu ne ko matu cee fas man Serigne saali rus naa nekk ci jamono. Mhm. bokk ak benn jullit jamono. xolam bii di yëg yàlla ëllëg ñu koy lakk tamateew. c'est l'absolu. kon kooku defe naa. Mhm. yërmandeem waxuma la ci yoonu mu murit waaye àgg na fépp. la te gis ngeen xasida gis sëñ Tuubaa tënk ci rahmaanu rahim. rahmaanu rahim moo tënk àdduna ak alaxira ndax rahmaan mooy turu yàlla wi nga xam ni ci lay yërëme képp kuy dund ki ko contre ak ki ko gëm ak ki ko wet ata sax ci boor ci biir lañ bokk. rahim mooy tur wi muy jox ëllëg ñi nekkoon ci li mu gërëm. rahmaanu rahim sëñ Touba da ciy tënk xasida mhm. rabbi maestro u daal koy tënk xasida googu ñaare fu sëñ Saaliw daan tëje da dégg mu jàng ko ñetti yoon tifli ko ñaanal ñëpp yaa mulki yaa man jàll an xawati yaa maalikal mulki yaa yaa hadrada rabbi bima يصنعوا الأصغار أخر فجاء بجهاز المن لا خل جاء حمد رب كريم لا شريك له وصدر اليوم نورا سيد الملا محمد صلى الله عليه في أبد عليه في صبيح كل به كلاح أدعو إلى الذي حمان ويحبه لجملة الخلق ما يختار من برا للجملة الخلق ما خلق ما خلق ما يختار من برا لجملة الخلق ما يختار من برا نجيته جل أحواما وكرمني تقري مادن وكل ملكا برا رحمن هبل جميل الخلق رحمة من يخن عن شر من قرآن أخرى حكمة المصطفى حكمة المصطفى ان كل مفسدة وضع من الخلق يا من دار برا يا مالك الملك يا مالك الملك يا مالك الملك يا مالك الملك يا من دار الخلق ارحم جميع الورى بالحمد من الوراء يهدن رداء بحوت ما خنحا وخل من در بجاح أفضل من لا يخل جاء دونكم يا الله دادري جاخان دونكم يا الله دادري جاخان دونكم يا الله دادري جاخان دونكم يا الله daagri caaxaan Cheikh Saliou Mbacké daaraan na ñoo daan seen njël ya doy na ngay jooy ñëpp na ngay jooy nga ngay jooy laajal la jooy seen waaja dem na ëttam ba day jooy xëyam nga day jooy ku ñun ko baax jooy ku yiw nga dem na te alxuraan moom saaram yi wet na ci alxuraan ma am ci alxuraan ma am saaram ya weena yow Abdoulaye xul bismilaay yow Abdoulaye xul bismilaay yow Abdoulaye xul mooy buur nguuram nga mooy nguur waxam nga moo war jooy dëgg jot naa kii daal di bàyyi saal ñemee ah su ko jaal kii daal di bàyyi saal ñemee ah su ko jaal ka foo dun bi dem naa di géntuy nax te ñemee ah su ko wax maa dégg ñuy wax Seex Saaliw Mbàkke dem naa kuy joor joorul kuy daanu daanul kuy jooyit xaacul jooy dëgg jot naa Seex Saaliw Mbàkke koo gisoon gisub xol mu gis la koo tee gisib du tax mu ñor la sëriñ Saaliwu Mbàkke ñu ko ñamaan mu ñoom leen kun mun a tee ñoomit du tax mu saf leen sëriñ Saaliwu Mbàkke ñu ko amoon te ñàkk ko moo tee ñu foog deg mu tey jooy ba fekk ko ni def jumaa ji Cheikh Saaliwu Mbàkke def jumaa ji te mus la laaj mu baaje te lii na ëttam ba day jooy xayam nga day jooy ku ñu ku baax jooy ku yiw ka dem na Cheikh Saliou Mbacké Cheikh Saliou Mbacké Cheikh Saliou Mbacké Cheikh Saliou Mbacké Serigne Saliou Mbacké tey sama Serigne ëttam ba doy xayam nga day jooy ku ñu ku baax jooy ku yiw ka dem na laa biiram gaak yërmandeem gaak dimbalam la ak Cheikh Saliou Mbacké Cheikh Saliou Mbacké yaa moom jumaa ji moom Touba ku yiw ka dangaan walhamdulillah walhamdulillah rabbil alamin walhamdulillah walhamdulillah rabbil alamin jërëjëf sëñ Ablaye ne Alaaji Ablaye eh, xanaa ci kanam tuuti rek ñu jéem a jokkoo waat

Denis Aida Serigne juste une petite pause avant de revenir sur le plateau émission Grand Plateau qui s'est TV al ji dina neex lool spécial Serigne Babacar Sy taala anhu lay ñu ci ànd ak Serigne Doudou Kenda Mbaye anu soppey Serigne Babacar yi bu nu sàggan ci Babacar Serigne Cheikh Tidiane Mbaye ak Serigne Pape Malick Mbaye ca waxtaan wi itam ñu ci ànd ak Serigne Khalifa Mbaye ak Serigne Abdoul Aziz Doucouré aljuma spécial Serigne Babacar Sy ci Sen TV ak seen émission le grand plateau anu soppey Alhaji Habib si. bu nu sàggan ci Babacar une émission grand plateau qui sen TV aljuma ji dina lol. lool spécial Serigne Babacar Sy Allah taala anhu lay don. ñu ci and ak Serigne Doudou Kedambay. anu soppey Serigne Babacar yi bu nu sàggan ci Babacar. Serigne Cheikh Tidiane ak Serigne Pape Malik Mbaye Ci waxtan wi itam ñu ci and ak Serigne Khalifa Mbaye ak Serigne Aziz doukore aljuma spécial Serigne Babacar Sy ci sen TV ak seen émission.

di anniversaire sosuk yonu murid. li ko taxoon a ci ci jamono moy xettali jam ñi ci jafé jafé yi nga xamné mom lañ doon dund. wooteem bi da daanaka ci tarbiya la ci jangalé tarbiya bobu ci la doon tarbiya sahaba yi yi àndoon ak moom yëpp leen tarbiya bañ mel nam mel nam nam bëgg ñu mel. ci la jot ndigal ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ngir yar nit ñi waye nak xam nga fekk na fi ñu daan yar. waaye dafa am lu bees lu mu ci dolli mooy himma yitte. kon mën naa ni sëñ Tuubaa ci xam-xam moom euh, comme ni ko sëriñ bi waxee sànq maanaam boo demee Mauritanie war nañoo fexe ba xamaat lan lañ wax ci sëñ Place Fiji TV C'est une émission grand plateau On axo So Soclean détergent bi africain yep d'accord ni mon fi Avec supermarché low price EDK oil Lip loo le le supermarché EDK oil njëg yu yomb seeni showroom DSL mi représenté marque Inco Avec total bi professionnel yep taamu Avec une boisson énergisante CDX. mi yokk a ak kattan chikorgi. Express Café pur café brésilien le goût du bonheur ak lait, mais on a pire Mon c'est la vie ak Wiesel Money une te jot khalis fait ci Sénégal C'est eau minérale légère au goût naturel C'est au ak neex te oyof essayé Touba ca kanam mi ñax cotisation 1000 francs weer bu ne leader ci location de voiture te ndayan ataye bi neex te gën ci jus de fruit, la fraîche tafke bu neex tànneef akfri Mobile mi indil 4G plus bu yomb gaaw te TV ak partenaire Ramadan Mubarak. waa Grand Moulin de Dakar ñoo ngi jaajëfal bépp boulanger bu nekk fii ci Sénégal tey liggéey guddi gi ci weeru koor bi Ramadan Mubarak. Magima mën bu bees bii mooy jox sama togg bu rafet. 300 enfants sur 5 souffrent de carence en fer ou d'anémie. C'est pourquoi vous devez toujours donner à votre enfant de la nourriture fortifiée en fer. Nestlé Gloria avec Nutriforce est enrichi en fer et en vitamine C, ce qui aide votre enfant à obtenir le fer dont son corps a besoin pour la force et l'aider à rester concentré. Choisis une santé de fer. weeru sel, ndogulu sell ñu ànd si ak Zena exotique fruit mi ñuy indil ay produits yu des te naturel yu melni, jus sirop confiture ak kaani bu saf-sàpp ngir neexal suñu koor Zena exotique fruit SA kilomètre km de boulevard du centenaire de la commune de Dakar. Téléphone 33 821 69 96 ou au www.zenaexoticfruit.com Zena Exotic Fruits, moo d'Ignan, bàyyi leen xel bu baax dabu plastique yi def ndox mu mel ni café wala ataaya mën nañu jural tooke suñu naanee café wala ataaya yooyu tooke yooyu mën nañu jural yenn sànkar yu ween di jàngoro yuy dal jigéen ngir ndogu ndogu luy sàmmonte aar kewe gi ndogu écolo te di ànd ak weer saa su ne nañu jëfandikoo kaasu weer mbaa bu tabax ñu ngi leen di ñaanal ndogu jàmm ndogu bu ànd kaw feex Japo sellal liggéey DSL Inco di wax ni nag indi na ay produits yu am solo lépp jëm ci outillage matériaux yu bees yi am na ay sans fil da ngay ñëw bëgg a visser doo ko dugal ci courant da ngay ñëw ne grrr mu daal di visser wu Inco fii ci Sénégal ñëpp ràññee ko ci liggéey bu mucc ayib boo xam ni nag dafay def spécial promo ci wàllu outillage spécial promo 15 ci seen gamme outillage waaw am nañu poste à souder am machine coupante aluminium bois carreau manqué wuñu dara pour y automobilistes ici, am nañu iPad d'outils visseuse sans fil écrou confleur, ventilateur underdog batterie recharge Inco parcelle Assainies 33 835 39 29 ou la 78 604 43 43 DSL Inco ci Touba Marnan, Tali Juma Djumagi 78 195 18 50 Moursali Carrefour 33 957 76 69 DSL déjà possède la la marque Inco couleur jaune jaune noir toujours copié jamais égalé mon morom. supermarché low price et puis épine na leen ay buntam ngir teral réewam yéen ñii bëgg ndugg def goût. i achat ci ben béréb ñëw l'en supermarché low price bu EDK Oil di ngeen fa fekk ay vaisselle yu rafet ci façon bu nekk ci njëg bu yomb yoo dul gis fenn. am ay jën yu baax ay lot crevette calamar am na charcuterie yu baax fromage yi moom tànn sa bu la neex la yaatu si ñaari étage di ngeen fekk moo xew yaay ñam ñamale ñeet ñam ñamale dangay naan ba mu neex lu mu mel ni sa yaram yoo ay dangay naan lekkaala say fruit waaw bu tàngee neex bu seetee neex la fraîche mangue nga ni la fraîche orange la fraîche banana am na cocktail jëlal am na pêche naanal am na goyaab waay jësi la fraîche dama koy selfie dangay naan ba mu neex lu mu mel ni sa yaram la fraîche ji la fraîche La fraîche amna macaroni, vermicelle, ketchup, mayonnaise, petit pois ak spaghetti. la La terre nous a fait don de sa richesse et de sa beauté. Le Brésil, terre du meilleur café, senteur, teneur, saveur. Café, le goût du bonheur. Free vous accompagne avec MyFree, l'application 2 en 1, où vous pouvez retrouver tous nos offres et services Free et Free Money. Téléchargez MyFree via Play Store ou Apple Store. jëlal li su ma la amul woon xaw fan laa jëm xanaa man damay moroom benn xale xool ko mu yaakaar moom laay waxal moo lee mi moo dul moroomu benn meew neex saf te di ma wettali <laughs> papa moo lee ñun xale ñoo ko jëm ba lee c'est la vie moo c'est la vie détergent bi nga xam ni la africain yëpp àndandoor d'accord ni moo fi gën moo ñëwaat ci anam bu bees formule concentré bu 30 pour cent bi nekk ci Sogline moo tax sa liggéey dafay gën a gaaw set teg si nes ne si maa la ko wax léegi nag Sogline dafa ànd ak technologie bu bees tàq buy dindi bépp tâche bu dëgër bopp bu beneen détergent mënul dindi Sogline technologie bu bees ngir lépp set wecc góoru jàmm ak Wizall Money Téléchargez l'application Wizall Money ci Play Store wala App Store ak Wizall Money yónneel ak jotal khalis fépp ci Sénégal ak Wizall Money fayal say facture te fay dara Money le compte qui facilite la vie Jambar moy ki fonk liggéeyam te ñeme ciono. xarañ am fi don gaynde man maay set di andando ñi farlo. lu ñu song daan ko naan bi lay jox juróom-ñaar fit doole xadar kattan jom cawarte ndam saa su ne bu ñuy wax boo bu yeesay cër sa x moo tax dafa gën a baax gën a neex gën a fort xaajal set x rek am lu bare roydum rock bi original set x mulai jauh katan kattan ak xadaru gaynde yokkal sa cawarte ak man maay set x Moussa yow da ngaa rajeuni wala mooy sa secret. da nga bëgg xam secret bi xaaral tuuti ma ñëw. ndaayaan war nga ndaayaan ndaayaan li mooy war nga ndaayaan. ma daa xam ci ku ci ah ah eh ma daa xam ci ku ci ah. Eh, sama jëkkër lekkee ba pare. jox mu du may jég biir waaye ak nag ci ceebu ndaayaan bi war nga soog a jóg doom yàkkamti xam nga ni war nga day war di dara sama ceeb baa ngi soog a jóg ceeb neex amul kom te suukar moo baax ci jabet daa sa kër di doom nga xam nga ku ko ëndi ni ndaayaan ni moom moo ëndi sa yu bëri yëpp wàñña mooy sunu waa Ndayane Imo distribution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 Japlaise leen TV C'est une émission grand plateau On décide Clean Soclean détergent bi africain Yep d'accord ni mon fi supermarché low price EDK oil Lip loo le supermarché EDK oil njëg yu yomb seeni showroom DSL mi représenté marque Inco avec total bi professionnel Yep tamo, avec boisson énergisante 7X mi yokk cawaxti ak kattan Express Café pur café brésilien le goût du bonheur ak molé mais on n'a pire mon c'est la vie ak Wizall Money Yunel te jot Sénégal, c'est ci Sénégal C'est eau minérale légère au goût naturel c'est au ak neex te oyof Tuba ko Touba ca kanam mi ñax cotisation 1000 francs Werbune bu ne leader ci location de voiture te ndayan ataye bi te gën ci sunu jus de fruit. la fraîche tiafka bu neex tànneef akfri mobile mi indil 4G plus bu yomb te yàgg TV ak partenaire am Ramadan Mubarak De siwaat ci Grand Plateau jaare nous di remercier suñu ay partenaires ñi ànd ak ñun euh, ci GP gis nañ ko ñu ngi gëna a bëri euh, donc di len euh, jaajëfal bu baax di rappeler rek nek ki di Serigne Abdoulaye Diop Bichri amalon na fi waxtan bu reuy ci dundu ki di Serigne Abdou Khadre ci nonu aussi ñu nara a ci deuxième partie bi ci Serigne Saliou mbake mais lata lolu dañuy dem jëli ki di maître madi kenyan parce que depuis tant que ba légui mu ngi bëgg dugg ci

te moom kat képp koo xam ni jullit nga képp koo xam ni waxuma taalibe mu dul jullit nga rek war nga xam ni sëñ Muntaxa chance su Sénégal la yàlla na fi yàgg lool te wax na ñu ñëpp ñu koy ñaanal fu nu toll. man nag waxtaan wi wax dëgg yàlla su ma sañoon sax damay ñëw bokk ak yéen plateau bi. <laughs> suñ ma enregistré sax daf ma koy jaral bu baax. Mhm. samay soppe rekk a fi nekk. rawatina ki nga xam ne moom moom télé bi ñu jege lool bokk dëkk ndar mu nekk sama rakk ñu bokk aussi jege jëmm joo xam ni daf ko fonk def ko ci biir xolam mooy Serigne Mbacke soxna bu buggaan maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu aussi ñu fi nekk yépp nag samay xarit lañu rawatina samay soppe lañu sëñ Ablaye Diop Bichri di nuyu di nuyu bu baax sëñ Akaza di nuyu bu baax ab Ablaye Seck ñooñu ñépp samay soppe la nu ndax man aw ma kuddul sëñ Touba waaye nag maa ngi nuyu sama goro ab Ablaye Mbaye Peex Ablaye li nu boole dafa bari jëmm yi ngeen di waxtaane may leen mu tuuti rek passé woon nga si jëmmi sëñ Abdou Khadre waaye dama leen di wax moom kooku yàlla kese la <laughs> dama leen di nettali rek ñaari xisa yu ndaw yu wane ni nu mu jeexe si boroomam dama ñëw toog benn bés mu wax ma ni ma dama bëgg nga leeral nu Nanggeni layo, nanggeni layo. Si ngeen di layoo ci avocat ma ni ka mbàkke de layoo ñaar la bu bi moy, dafa da ngay woyafal sa baat ñaan ñu jéggal ko mi ma ah, loolu ngeen def de dëppoo naag li sunu borom wax ndax ku tooñ ku nekk jéggulu ñaareel bi ma ko mooy koo xam dañ ko tooñ suñ ko tooñee dañuy yëkkati sa baat ju taxawu ko mu ni loolu dëppoo naag li sunu boroom wax de ndax képp ku nu tooñ dañ ko war taxawu seetal ma rek si loolu nga xam ni suma métier la ni ma ko waxee ak ni mu si gisee képp boroomam am na kenn koo xam ne dafa fa dem bo boole ma ni ko ma dikk kat moom ma bëgg jaay doole jaay sama kër am ku ko dégg rek wax ma ko ma daw bàyyi li ma doon def yëpp audience yëpp dem fekk bustaan bi mu ñëwee mu ma ma ñëw laaj ko min ma mbir moom nan la demee ma ni que moom de ma ni que man sama liggéey la avocat la képp koo xam da nga am bor ba nu tëla fay da ngay ñëw si avocat moom dafa tey la woon këram lépp tey la këram fayul min ma ah ku lépp li nekk tey la la nga tey la te fayuloo soo fayul ni war ñàkk nga war nga ñàkk sa la nga xam ni moom nga tey la waaye yamul foofu de mu toog ni yàlla si boppam bi mu jëlee ay tërëriñ dig nu am yum nu dig def si boole yërmande ni ma kat soo ko mënee dimbali na nga ko dimbali ma ni ko dégg naa ko bu baax may dem mu xëcc sama loxo ni ma waaye nag dimbali si yàlla gën a bëgg na ko teg si yoon ma defe ni damay demaat mu yónni sëñ Modou Mamoun ni ko dabal ma ko de ni ko dem bëgg naa mu dimbali ko waaye na ko teg si yoon kooku léppam yàlla kese la dañu Abdul Xaadir mën naa si wax ay xisa yu bëri da ngeen ko weesu rek waaye nag da ngeen ñëw si koo xam ni lim lim ma jege dafa dafa bëri sama àddina dama ko teel jug rek bëgg di ko seet di ko seeti booba tuuti tànk laa sëñ bi booba moo daan jiite timis ak gee su paree la yeewi nit ñi timis ak gee daawul jàng lu dul falaxe ak naasi dama daan daw di ko fekk ci loolu ba yàlla def ma am bunt ci moom waaye kooku nag wax dëgg yàlla borom jamono la woon dafa joxoon boppam borom ba mu jeex tàkk bëggul luy nuru luy kañ boromam te foo ko fekk nag mi ngi def ay xar baax mas na am sama xarit boo xam ni dafa ma wax ne ma sama doom dafa sopp sëriñ am sëñ saaliwu dafa sopp sëñ Saaliw te dama bëgg nga yóbbul ma ko sëñ Saaliw waaye nag dañ ko war opéré ma bëggoon nga yóbbu ko ko mu ñaanal ko ba mu demee ma dee ko wax ka bi mu tooy ma salaw sunu borom de mën na dimba mën na nañu dimbali ba du àgg foofu xale bi bi mu ñëwee dakaar nit ni dañ koy def visite de contrôle balan koy opéré ba nu ñëwee ba nu ñëwee def visite de contrôle ni que ñun dañu jaaxle gisatuñu lu tax ñu war la opéré lépp normal si yow. lii bis bis mi nga xam ni dama ko soppal sama xol léegi li mu wax mooy sëñ Saliou mooy docteuru docteur yi. li moo faj kenn xamul nan la toll. yàlla may ka mu mu gëm mu mu xam àddina lool te dëddu ko bëggul dara si àddina àddina dara safu ko si lu dul dimbali jaam yi li Bichri wax dëgg la ni mu amee yërmande si jaam yi foo ko natt rek weesu na ko su gisee man man mii su ma amee lu ma metti damay ruus dem wax ko sëñ saaliwu ndax su su ko déggee dana si am melokaan boo xam ne dama see mujj am kersa damay yëg naqadi gum kan naqadi ak ni mu bëgg nu mu bëggee boroomam faj ka ba damay ñëw si nan dama mujj rek fépp foo xam ne am naa tiis wala lu ma naqadi damay ñëw rek su ma ñëwee sigg xool ka gis ay bëtam rek billahi ma fas ka si sunu boroom faj ka mhm. kooku wax dëgg yàlla yàlla kese la am na xisa boo xam ne mukk sama ne dafa ba France ni xel kom la bëgg xam xel kom nan la tëddee ma yóbbu xel kom te te maa ngi leen di ni sëñ Saaliw moom si boppam moo moom moo dessiné architecte dëgg-dëgg xel kom moo ko dessiné loxo ma su fa mu ñëw gis xel comme ni mu mere ak ni mu tëddee mi ni kii de il faut ma seeti borom xel comme maa ngi leen waxaat ni sëñ saaliw juma ji tey di juma masalikul jinaan ban ko jëkkee yóbbul ban ko jëkkee yóbbul plan bi man ak président Ablaye Wade architecte baa ngi toog di may sa ture dafa jël rëddaat moo ko rëddaat ba juma ji mel nii nu mel yàlla moo ko mayoon xam-xamu àddina lim si am kenn xamul nan la toll te soxlawu si dara tubaab bi ba mu ñëwee fekk mbooloo mu bëri di xëccoo di gis sëñ Saalu mun ma lii lan la ma ni ko danoo ziyaar mun ma luy ziyaar ma ni ko borom dërëm dana ñëw borom million borom nangam mu gis mbooloo am ni noo xëccoo sëñ Saaliwu bi mu ñëwee mu dugg si biir sëriñ bi toogloo ko si chaise mi ni day toog si suuf comme ñun sëñ bi déedéet nañ ko indil chaise sëriñ bi jël kafe jamono yooyu sedd bi téyegul loxoom jël kafe di ko xellil ba mu koy xellil ba jox kafe ji rangooñam di jooy euh, di tuur muy jooy na xale bu tuuti bi moo jooy na xale bu tuuti sëñ bi jaaxle nan ko laaj mu ni kii moom dafa gis ay jukko yàlla kese la gis ci moom seetal doole ji mu am seetal ni ko nit ñi bëggee seetal ni mu dëddoo àddina seetal lalu dënk lalu dénk bi mu toog seetal tey mbaax gi mu am ba man xam fan laa jóge mu ñëw di ma servir kii ji la ko yàlla kese la. tubaab bi ba mu fi jógee dama ni dama koy yóbbu Ablaye Wade boobu Ablaye Wade mooy président de la république. ma wax ñëw yóbbu ko ko mu nettali ko Ablaye Wade Ablaye Wade kii dafa di ma kii du ñibbi il faut Karim ak si njili gis ka mu nettali leen lii ba nu xam ni man kat sama sëriñ kan mooy sama sëriñ. waaw kooku moom loo nettali si moom rek. li gën yomb jàppal ni ñetti ñetti fonk yi mooy dund sëñ Saliou jox boromam boppam ba mu jeex tàkk jox léppam sëriñ Touba soxla soxlawu si dara léppam mu jox ko mbindeef fi ngir yërmande gu mu am si moom dundam yépp lool la dundam lépp lool la seetal ñaata milliard la fi bàyyi seetal ñaata taxawaay la am te nag lu nu wax si sëñ Saliou rek si ay xisa wax dëgg yàlla bàyyi nañ lu bëri man masuma am soxla te jot te dugaluma ko si ay noppam te fajuwul dama mujj sax ni jaratul kii ma koy wax soxla su ma toppee fii dafay àll mën naa leen nettali ay xisa yu bëri dañ saaliw dafa nekkoon koo xam ne léppam daf ko jox boroomam am na beneen te fees dell ak fulla nag mbaax geeg fees dell ak fulla moo wax benn bés ni ma man sëñ baara xoroja la mu waxoon rek laay def boobu fekk na am na litige bu am min ma sama diggante ak sama boroom sama diggante ak sama boroom lu ma gën tuutal sama jëmm ji dama koy xeeb mhm. waaye nag bëgguma ku ma si dimbali pepp suuf kooku mooy sëñ Saliou sama soxna mas na tollu diggante nekk di accoucher ma yónnee ndaw ñu jox ma ko téléphone ma wax ni que kii kat nekk na situation bu metti boo xam ne jaaxle na mu ni si suñu borom dënnu si dimbali moom lépp daf koy delloo boromam. wallaay wallaay ñang wallaay wax nga dëgg boromam. kooku wax dëgg yàlla. dëgg la dafa dajale nag dafa. moom moo doon ki nga xam ni moo mujj. waaw doon doomu sëñ Tuubaa si suuf moo tax mu dajale nag mbaax yi nekk si ñëpp. mbaax yëpp la dajale. damay wax ni sëñ Saliou beneen tegtal rek duma leen téye lu yàgg. nee naa leen dafa taxaw taxawaayu Umar bun Xattaab si yoonu Murid. bu njëkk képp koo xam ne danga nga doon taalibe daawuloo ko fësal daawuloo ko wane. waaw metti metti jërëjëf kontaan nañu waaye moom bi nga xamee ni nekk na prés nekk na euh, xalif général des Mourides ci la am président de la république ñu ñu élire que ma ànd ak moom mu ñëw summi mbaxaneem uh-huh. summi mbaxaneem raam ñëw su jotal ko moo tax la Umar bun Xattaab defoon mooy tojloo tax yi yoonu Mouride la fexe ba tey su jot yomb bu njëkk sujjóot jafe woon na am na ñoo xam ne amoon nañ complexe <laughs> dafa mujj sax damay gis ñoo xam dañoo sujjóot wóoruma sax ni jullit la nu may doon murit te loolu yëpp sëñ Saali woo ko def ñëpp bëgg ko nag jërëjëf maître jël lislaam yëpp ëmb leen mhm, mhm. man yónni na ma ba tey i ay këru diine macha allah këru diine bu xew la ba nekk mu yónni ma fa kooku wax dëgg yàlla wax si moom dafay jafe si benn guddi de. da ngeen war jël ay guddi guddi waxtaane sëñ Saliou. kon bëgguma leen tenir. lu yàgg wax dëgg yàlla sëñ Saliou borom baax la. sëñ Saliou borom yiw la. sëñ Saliou yàlla kese la loolu laa leen bëgg wax. merci maître merci maître mu nekk euh, ku bëgg sëñ Touba ku bëgg waa kër sëñ Touba euh, ci noonu euh, père dañuy bàyyi peut-être Abdoulaye Diop Bichri mu wéyal waxtaan bi laata ñuy delloo kàddu gi ak Assa Samb moom tamit mu bégalaat ñu tuuti. waaw xam nga ne ne Madické dafa xër ci sëriñ bi tey doomam la bëggoon ko ko caa sax bu koy tooñ danaan barke sëñ Saliou. Mhm. moo tax nga xam ni moom léppam Serigne Saliou waaye fi mu ne nag ñëpp a ngi taatal di déglu Abdoulaye Diop Bichri ndax tey ki ñu indi ñaar ñi ñu indi dañooy dañoo saf xorom ci kër Serigne Touba te diggante Serigne Saliou ak Serigne Abdou Khadir ajuma gaaw la benn bis doxu fi Serigne Saliou man ànd na ma ak Serigne Abdou Khadir mu yendoog Serigne Saliou ba ngoon ñuy bi buntu ba ca ginnaaw ñu toog ba ñu demee bay ñaan. sëñ Abdou Khadir geesu daal ne ana Ablaay ñu ni peex ma daw ñëw mun ko ñaanal ko sama taalibe teguñu ci lu yàgg rek sëñ Abdou Khadir nelaw sëñ Modou boole maag président assemblée nationale boobu ku ñuy wax Abdou Aziz Ndaw moo fi nekk ma indi ko ci sëriñ Saaliwu bi mu waxee moom ba jóg ma des di nag tàllal ko samay loxo da ko mun ma yow de fàttewuma la ma sëñ Abdou Khadir waxoon ci yow fee kookoy sëriñ Saaliwu Abdoulaye. ah jërëjëf euh, Père. Euh, maître Khassimou ture woote na léegi nee na mu ngi ànd ak ñun ci jotaay bi. sama xarit euh, Ablaye. waaw euh, ñu ñëw nag ci xilaafa ki nuy waxtaane tey muy Serigne Saliou Mbacké Khadimou Rassoul buñ ne xilaafaam nag dana nu appesantir bu baax ci ay réalisation am muy doon Serigne Touba. ci kaw waaw kay Serigne Salih ñu ngi beral nuyoo ma Madické Niang mi duggoon léegi. moom yàlla dafa dogal mu sopp na lool amul ti ñun sago te loolu yàgg na jël ay teraanga dina ko yóbbante lu bari bari na fuñ jaar maak moom mi it ku baax bëgg sëñ saaliwu tam ndax depuis démb la ma woo ma faaw ma dugg ci émission bi nu koy sant euh, sëriñ saalih xam nga léegi la ma sëriñ Amsatu mu sëñ Abdou Lahad di woo ni ma yéen a ngi sama sëriñ wallaay waaw léegi la ko wax téléphone macha ma sëriñ saali wooyu sama sëriñ mhm. sëñ Abdou Lahad tey sama wéejur sëñ saali wooyu sama sëriñ moom la ma joxoon moom rek laa xam jaalibatu ni ma maa ngi leen di sant yéen ñëpp ni ma sëñ Mor Mbay Siise wàllu bu mag ba nekkoon ca njaarim ku ne xam na sëñ Mor Mbay Siise ni meloon ci wilaaya ñëpp fa daan dem seen aajoy faj nee na dafa jël seggukaayu café yónni ko ndaw ni ko boo demee ba ci sa saaliw na ko ko jox nee ko sëriñ Tuubaa wax ma jox ko nee ko nay jëfandikoo café te xam ngeen sëñ saaliwu li mu amee woon tax na kafe bu ko masaana naan day mitti lool ci moom ci njaal benn waaye sëñ Mor Mbay Siise yónnee fa ne ko sëñ Tuubaa nee na nay jëfandikoo kafe bi muy ndawam di ñëw fekk ndawal soxna Aysatu Gaawaan ñëw fa moom it soxna Astu Gaawaan ci njabootu Seexul Xadiim la bokk soxna Aysatu Gaawaan ku amoon cër la ci sëñ moom it ndawam àgg ci sëñ wi jox ko kaf ceeru kafe ne ko dee ko barkeloo waaye dafa wax moom sëriñ saali ni soxna ay Aysatu Gaawaan laay jël seere donte kafe baaxul ci sama wér-gi-yaram dina am ngeen seeral ma sama bëgg sëñ Touba su ma ci doxee wàcc liggéey itam ngeen xam ne bëgg sëñ Touba tax ma jaar ci wàcc liggéey jëfandikoo. waaye ba mu ko jëfandikoo dafa far bëgg na gën koo bëgg dundam gépp daan jëfandikoo café ku miin Serigne Saliou boo ko nuyoo mu jox la café xilaafaam mu ngi ko jëlee ci Serigne Abdoul Khadr mi doon waxtaanee léegi mu wàcc liggéey le 13 mai 1990 boobu fekk na Serigne Saliou teel a nekk liggéeykat bu mag wax naa leen léegi ni. ci tool yi rek la nekkoon di bay ak di jàngale ak di yare bi mu toogee tam lu mu njëkk a wax mooy jox leen ma ndaw ñi ma def ca sëriñ Touba daan def ca mag ña sunu ko yooyowul sax nu barkeloo ndaw ñooñu mu wut fukki daara ak juróom yoo xam ni yépp tarbiya yar jàngale yor seen lépp seen dara manqué wul li mu njëkk a def loolu la bi ci topp muy bi mu ñëwee daa jàppale esprit ñu teel jàppale Wade bokk seeti na ko ci jamono yi 2000 bi kayu Abdou Diouf jeexee Abdoulaye Wade avant muy mi daa seeti Serigne Saliou ba mu ñëwee kaasu kafe la ko jox te am ñu ko fa jiitu mu jox leen kafe ñu ne ko kafe dañ cee xirul waaye bi Abdoulaye Wade ñëwee mu jox ko kaasu kafe mu barkeloo ko Serigne Saliou ni ko daa mel ni yow de bëgg nga kafe mu ne ko rawatina ci bu jógee ci sa loxo yow mi borom jàpp ah. Serigne Saliou ni ko jëlal kaas mayaale naa la lépp keroon la jox réewum Sénégal mu toog nag dimbali spirituel dimbali temporel. waaye yéwénal mbir yëpp Serigne Abdoulaye Jaxate dafa woy dunduk sëriñ Saalihu dani xiyaasul baraaya a cheikhu saalihu yuslihu móoral wara laa yamtari fii muflihu li mu njëkk a def mooy bi mu toogee wan na ñépp ni may xettali mindee fii kenn du des ku nekk dimbali na la ñu jële na leen ci xat-xat yoo xam ni kaso la leen génn nañu daal di génn ñi jëlé na leen ci tukki bo xamni japon ba woo turu sëñ Salim mu taxaw leen ñu génn seeni xat-xat ñi dem nañu bañu tawat ñu ni c'est fini seeni mbokk joy leen seigne salim taxaw leen genn leen kon xiyaasul baraayaa la won min def yeb mo leen xétal mu ni al cheikhu salih yuslihu mu ni seigne salim dafa yéwénal umóoral waraa mbiru mindeef yi kone sa ba ak sa zaay sëriñ Saaliw dugal la ci loxo mu ni laa yamtari fihi muflihu képp koo xam ne war ngaa texe nee na doo werante ci lii ma wax mu ni wa siq naa bihi nun ñépp danoo wéeru ci Serigne Saliou jafandiku ci moom mu ni loosoo bihi kon yéen jaam ñëpp wéeru leen ci wéerukaay bii di Serigne Saliou ndax bu nu fàtte ni ku tedd ki nga xam ni moom mooy yaakaaram di Serigne Touba daa waxoon ni amari nii rabbi bi an usariha bi am na nii malazun wa mafzaun fa man araadal xayra fii kilta yi daari ni fal yalus bii yàlla moo ma wax jox ma ndigal naa yëgal jaam ñépp ni wéerukaay laa làquwaay laa rawukaay la ku bëgg yiwu àdduna ak àllaaxira wéerul ci man doo daan sëriñ Saaliw bi mu ñëwee wéerukaay la moo tax sëñ Abdoulaye Jaxate ni wéeru leen ci jëmm ju tedd ji di sëriñ Saalix mu ni man yalus bii képp ku wéeru ci moom yafuz sa amanin dana texe àndaale kóolute du am benn jafe-jafe bi naari yul faxu te kenn ko xam sëñ saaliw liggéeyal ko ëllëg doo tàbbi sawara ku liggéeyal sëriñ saaliw ëllëg mënoo tàbbi sawara kooku c'est impossible ku liggéeyal sëriñ saaliw mu ni safi yun sëriñ saaliw ku selloon la sell ci ay jikko sell ci kàddu maandu ragal yàlla léppam sell xolam sell safi yun salimun nitu jàmm la woon léppam mucc la sëriñ saaliw bi mu toogee jàmm rek la wan réew yépp كوني مو جيل جامم تاساري كو فوفو مو اغ فا موني في نقرا نرتوي ديمون نا با ملني سونو سيوني وو خامني نييب كي لا ني ديمي دي وغ دي نان سي سيغ سالي با مان وصباح غايات العلا ليس يجمعه بيمو نيوي جيتي نييب ليكو سيرن توبا جوخ موي دونو سيرن توبا لي مو واخ موي سما دونو القران لا واخ كنزل كتاب والحد والادب لا جمع فدة ولا جمع ذهب سيرن توبا ني دنتوما ورس فوني دونو denciwu ma alal ju ñuy donn ndax soxlawu ma ko lenn rek laa denc muy sama alal ñu ma koy donne alquranul karim mu liggéeyal sëriñ sa Tuubaa ci alquran lu kenn liggéeyul kon dono bu njëkk mooy alquranul karim sëriñ Tuubaa ni jëfinu yenant bi mooy sama dono ku ne xam na ni sëriñ Saaliw moo dundalaat gàmm yi saa bu ma see woote màggal da koy booleeg woote gàmm gàmm gi ne nag lu ci waay mën na ko ci def mooy bisub yanantu bi alayhi salaatu wasalaam mu boole kon dundalaat màggal gi dundalaat gàmm gi mu wax ni ku ànd ak sëriñ Saliou danga am kóolute mu ne waaye bi nag euh, laa bi fas wi nga xam ni moom la Serigne Touba wàcc jox ko ko mu war ci mu ni bàyyiwul fas wi mu màmm yóbbuñu foo xam ni dañoo yóbbu ci mbeewte ñëpp la yar teg leen ci aw yoon mu ni nu baax yi bi fil ilmi mu ni ñun ñëpp de yeewoo nañ ci sëriñ saaliwu ci xam-xam bi nekkoon ci moom waaye bil xilmi ak lewet gi nekkoon ci moom ñun ñëpp dañuy pookare woo lewetu sëriñ saaliwu ñun ñëpp dañuy pookare woo xam-xamub sëriñ saaliwu mu ni wala adli ak maandute gi nekkoon ci sëriñ saaliwu wattuka ak ragal yàlla ki sëriñ saaliwu ku ragal yàlla la woon ragal ko lool ta nangu ko topp mag ñu maandu nee nañu bokk nañu moom néeg day naafila alquran ba fajar da koy naafilaa ba fajar ngir ragal gi mu ragal yàlla ak di ko wattandiku ci léppam saa bu yëkkatee kàddoom waxam mooy lan maa ngi tuubal yàlla sama borom maa ngi sàkku njëgal sama borom di tuubal mbokki jaam yépp di leen ñaan ngir ñaanal ma yàlla mu jéggal ma te gën a ragal ñépp yàlla yilif jamonoom tey lépp ci loxoom te saa su waxee day wax maa ngi tuubal sama borom maa ngi leen di te sama bopp laa ci jëkke defe naa loolu fala ab tuqaayam ragal yàlla dëgg la mu ni wa fii kawnihi lillaahi lil xalqi yasmahu tabek sëriñ saaliwu àggoon na ci jaam ñépp xàmmeewul kii ci tiijaan la jóge xàmmeewul kii ci murit la jóge xàmmeewul kii xaadar la kii sakkee ku ñëw mu jox la teraanga te defe naa labbe ak sekk seere na ko am na ñu ñëw ci moom fu ne la ñuy jóge mu leen di teral ci ay teraangaam jaam bi la bëggoon jaam bi ku yàlla sàkk rek sëriñ saaliwu mu doon xool ci yow yàlla di la di la di la yërëm wa baxru nadaa dafa nekkoon géewal moom Serigne Saliou waaye mu nekkoon na daa ilmin dafa nekk xéewalu xam-xam bu nu yàlla baaxee ci kaw suuf bi mindiili nusihi mindiil ci arab mooy musuwaar mu ni laa bi rek Serigne daa mel ni musuwaar bu mu yor di fomp xol yëpp gis ngeen ku dëngoon lool daan def lu warul gis benn yoon ci dundam Serigne saaliw doxe fa soppeeku ba faw nekk léegi ko sàmm gis ngeen ku jaaxaloon ay mbokkam bañ ñi àdduna nangu na ko Serigne Saliou tarbiye ko mujj di bind ay téere gis ngeen ko demoon ba roy nasaraan yi yàqu di naan ak tuxlu nuyu benn yoon Serigne Saliou doxe fa baax ba faw kon daa mel daa yoroon musuwaar ku ñëw mu fomp say xol ndax boo jàkkaarlig Serigne Saliou jàkk ji muy def xool la boo ci jógee jub rek moo lay ñor moo lay ñor mu ni kon noonu la meloon way yuxaliku baaba sorri Serigne Saliou dafa tëj buntu ay bi mu nekk réew yëpp jàmm rek ñëpp la jëflante woon jàmm kër yëpp mu am lañ lanteeg ñoom jàmm benn ay du juddu ci jamonoy Serigne Saliou ñëpp jàmm xoolal diggam ak sëñ Abdoul Aziz Tabax ba mu ko seetee 1982 ca Ngot keroog ba nu ñëwee julli jot sëñ Saliou ko jiital julli gi sëñ Abdou ne ko jiital koo jiite yàlla yërëm jiite sëñ Saliou ne ko dinaa jiite ci li nga wax waaye ci kaw nag anam boo ma ko mayee sëñ Abdou ne ko may naa la ko mu ne ko kon damay jiite tisbaar nga jiite tàkkusaan nga jiite timis nga jiite gee ñu door a ñaanalante allahu akbar nga xam ne diir bi mu fi nekk l'islam bépp yi pokkare woo sëriñ Saaliwu ngir yërmande ji ak rafetal gi ci këru diine yëpp mhm. teraangaam di dem ci këru ëttu diine yëpp muy yóbbante ci jamonoy gàmm yi kër yëpp di yóbbante teraangaam fépp mu fay àgg sëriñ Saaliwu boobu jëmm la woon kon géeju xéewal la woon koo xam ni xéewal yi daa wër àdduna mu tëj buntu ay yëpp ba ay du romb Serigne saliw muni way walil muhtadi ku jub nak la meuna defal ko xamni mu ngi sakku njub bu ñewé Serigne saliw te jël ko buntu ay jox ko ay xewal yaftahu babal fu yoo daati bi mu fiy nekk buntu xewal yeb tay ñaata la formé ci ay milliardaire ci rew yu ngeen xam ñaata milliardaire yo xamni tay Serigne saliw lañu àndal tay ami milliard di liggéey seen entreprise nek fep te Serigne saliw mo leen tifli la romba defe naa mën nga ci tudd Cheikh Amar de. Ah, de dëgg la. tifli loram. dëgg la. tey jii ay milliards la am. fu nekk ñu fay liggéeyal Serigne Saliou ci àdduna bi. am na ci ñoo xam ni kenn xamu leen yëngooñu te la ñu yor yëpp Serigne Saliou leen dimbali. dëgg la kon jëmm la joo xam ni bi mu ñëwee daa ubbi buntu xéewal yëpp ku ko liggéeyal daal di texe. waaye li gën a am solo mooy ñaqal sëriñ Touba ndax Serigne Touba moo ni képp ku ma ñaqal yàlla dina la jox say aajo looy bëgg àdduna ak àllaaxiraa di nga jot. waqdi xawaaij alladina daamu fii xidmati wa hëb lahum maaraamu yàlla ñi sax ci di ba liggéeyal na nga leen jox lépp lu ñuy sàkku te da nga faj seen aajo sëriñ Saliou ñëw ubbi xel koom murit yépp di fa daje di ñaqal Serigne Touba ndax mooy Serigne Touba ñépp di dem di ruuj di bay di dagg garab yi di ko liggéeyal mu ñu xool bëtu yërmandeem ya dinu yërinu yërëm te Serigne Baara jenn day moo njëkk ji ñu mbiru xel koom mu maam Cheikh saa jenn borom jenn ak lagat moo njëkk a jaar ci àll boobu daal di otoom ngiiroo fa mu wàcc puus koog benn loxo la ko puuse mu dem mu daal di wax ni aka neexoon jamono ji nga xam ne Serigne Touba dina wàccaat fii woote fii ñu koy liggéeyal ku fi ñàq ñu yëggal la aka neexoon ma fekke jamono jooju di ko liggéeyal aka neexoon ma fekke jamono jooju di ko fi ñaqal mhm. sëriñ Saliou ñëw bëgg ñëpp am texe mu woote xel koom kër yëpp di sasu ku ñëw ñàq yàlla jéggal la loolu sëñ Saliou ko njëkk a def wut fukki daaraak juróom yépp di ñaq ci liggéeyu sëñ Touba te sëriñ Touba nee na yàlla képp ko ma ñaqal na ko defar àjjana na nga ko jéggal ay bakkaaram sëriñ saaliw yéene nu ko di ko tàllal loxoom jaam ñëpp ni ko ko ñaqal yàlla jéggal la mu tàllal loxoom ñëpp ñuy ñaqal sëriñ Touba nekkoon jëmm joo xam ni dara ump ko ci fenn ak réew moo jóge ak jaaxle boo indi sëriñ Saliou fajal la ko nekkoon jëmm joo xam ne bi mu ñëwee daal liggéeyal njabootu Serigne Touba gépp waxuma la boppam ñëpp ñii magam ñii ay rakkam ku nekk liggéeyal na liggéey bu rafet boo mën a teg loxo eh, ngir mbaaxam ngir bëggam sëriñ Touba ngir woyofam ngir yërmandeem ngir yaatoom ku rëy ko yàlla defaloon. mu nekkoon jëmm joo xam ni dafa ubbiku ubbiku ci lépp daana wax ni ba yàlla sàkkee maam Adama ak léegi de bu dee am na ñu ma ëpp xel ñu néew lay doon. ngir xel mi ko yàlla defaloon mu ubbiku ci lépp te defe naa yenant bi moo wax ni nan ngeen di xame ku ëpp xel ñu ne ko kan la yaa rasulallah mu ni mooy ku dëddu àdduna bu ñu lay laaj ëpp xel mooy ko wan ginnaaw àdduna te xam ni fii du kër fële dul jeex mooy kër mhm. sëñ Mbay Jaxate waxoon na ko nee na àdduna yow waxal ak say far yu dof yi la nopp xamal ni man mile le fir daw see di ndaw si ma nopp kon ñoom fa ñu tegoon bët mooy fële dul jeex mhm. te sëriñ dëddu àddunaam soxlawul dara ci àdduna te bi muy donn sëriñ Touba booba doonagul sëriñ Touba moom bi muy nuru sëñ Touba ci melo yëpp di ko donn booba ay magama fi nekk waaye ñëpp xam ni kii jëmmi sëriñ Touba li koy firndeel da waa kër sëñ Moussa Ka radiyallahu anhu dañoo dem di ko seeti biñ ñëwee ñu ziar ko ba noppi wax ko bayit bi ko seen maam woy ci xarnu bi ñu wax ko ba àggal mu ni sàlla woy na ma woyu ko gën a yàgg keroog la doora door a xam ne nekk des Moussa Ka woyoon na ko yeneen wayu yàgg ni booba jamono maa nga mbuur daa waxoon ni ma woy fi donoy xalifay cheikh bamba wax bu mata setlu seetlu xam nga donoy xalifay seexi bamba mooy xalifa seigne Touba yépp bu nu pare mooy seen synthèse mooy ñëw nekk seen kamil bi donn ñépp te moo fi mujje ci doomi sëriñ Touba ma woy fi donoy xalifay seexi bamba mm-hmm. mu nga fa mbuur ak mbóot ya te yenu yen ba ni li tax ba mbuur raw fi mbooleem réew mi donoy xalifa baa fa xelli meew mi defe naa tey mbuur moo gën a développé wu ñëpp ci wàllu tourisme maa ngi ziar Pape Mamadou Sow boo découverte touristique sénégalaise Fram Voyage Palme Beach ak soxnaam soxna na koy ka kon tey mbuur yaakaar naa tey moo gën a développé ci wàllu tourisme te loolu lépp liggéeyu Serigne Saliou la yërëm ma da jëla tuur ci mbuur ba ñëpp tey di jariñ muy jëmm joo xam ne kon xilaafaam mu ngi ko toog ci fukki at ak juróom-ñaar mu ngi jël xilaafa gi 13 mai 14 mai la nekk Serigne Touba Serigne Saliou Mbacké 1990 Serigne Saliou ngi génn àdduna le 28 décembre 2007 àdduna bépp lëndëm ay dëgg nga xam ni Serigne Saliou ak demam. Mhm. da lay fàttali dem ko Serigne Touba. ndax bi nu noppee gis Serigne Touba. faaw nga ni waaw lii nu muy demee Serigne Touba gisatuñu. alam tara rasuulallahi fawqa matlabi من الله ربي والرجاء لم يخيب طلبت الرسول الله في فوق مطلبي من الله ربي والرجاء لم يخيب وحات الورى سهسهت بالله يا نبي بخيري بلا لقيانة ساكرا ختيم إلى الواحد القهار من جاد بالهدى قد درحت قبل الحام حبدا لدى الحدى أجاب بك المولى دعائي مسددا لساني كما صفى فؤادي موحدا ألان لي المولى بك الدهر حسدا وباءوا إلى خير ندى ما من السنين على المصطفى في الحدا في ختاله سلام كريم حدري من رجاله قفوت وإني سوردا في حياله سعيدا مطاحا فائسا بوساله عليه صلاة مع سلام بآله وأصحابه أسد الحدى مؤمن الدحي أصلت البلاء والجهل والفقر والحنان ولي خط يا مختار ما تاب من خنان إلى الله حمدي مهك يا من له سنا أقول أخذتي سفر في الدور أسمنا إلهي بجاه المن تخاخد خد للمنى حب سكورا سامكوس محل برئي إلهي بجاه المر رخى قد للمنى لا إله إلا فلي حبس كورا سام كوس البرئ لك السكر والتحميد يا خير مالك على من له سحب علو كل سالكي لك الدهر يا فردا على المساركين شكوري على من جاد لي بالمناسك ليستر عيوبي واحد لبي كل ناسكي وعني على خير الورى سرمدا سلي لك الدهر يا باخي إلى مرية ملي ولست على المولى بحبد حب كلي ليبسط إلى الجنات خيرا محل وسلي ولي حب دوام البسر الأمن سافر لي لك الدهر أبقي من لا إله إلا الله ليبسط إلى الجنات خيرا مع الوصل وليحب دوام البسر والأمن سافا لي لك الدهر نفسي سكها وحدي بأهلي وسل بتسليم على أفضل الرسل هدايا ابتداء المصطفى أفاك للوجه إلهي وحبلي خير حلم وسد نبحي هباتك لي أحيات شكوري بالكنح لك الحمد يا فردا تحاليت عن سبه حديت بأخدي وات التصوف والفقه هي لي بسكري مع صلاتي وبالمدح هديت بعقدي والتصوف والفقه هي لي بسكري مع صلاتي وبالمدح هديت بعقدي والتصوف والفقه xiyaali bi sikri ma salaati wa bil madhi sëriñ saali wooy sëriñ bamba jug leen ñu santu ko sëriñ saali santu ka war na sëriñ saali wooy seex bamba jug leen ñu santu ko ka màggal mag sëriñ Saaliwu Seex Bamba jug leen ñoo santu ko sëriñ Saaliwu Seex Bamba macha allah. barakallah jërëjëf Abdoulaye. ah sëñ soxna nen ni. ah tubaar tubaarkal la. papa. waaw ma ne ko. nit dina la mën. waaw waaye yow nag sama yaram daw na sa bàyyi sëñ Seydou Khoule. waaw. سيدي خلي صباي لبم سرين تاني ولا آه أسمع بقول فصباي مصدم كبيري أكبتي مريو سرين تاني ولا يوب الله ما يلا بقول ليسان موتخ سرين تاني فمو دار مريم غير واي فم واتي مجندي ا أه، باراتور بارين واي لي خاو تاي نك ميغي دوغ خيو لاي ليسان تاي ريمي بيريمي أكبتي مريو تاي كنلو تاي لا تاي dañu toog rek ba ñu salaatu ndax jar na ko. ki ñuy woote jar na ko. ñu topp ci réseaux bu baax. ñu digganteem ak réew mi ak digganteem ak këri diine yi. man nag dama am tawféexi sëriñ sëriñ Cheikh Abdou Aziz Dabakh Malick mu baax ma. ñëw Touba di ko seet si ma ñëw nuyu ko di dem mënu ma déedéet ci ñu koy taxaw keroog sëñ Modou Mamoun Niang ak sëñ Moustapha Saliou ñoo ko teeru alaaji Abdou jóge Tiwaawoon ñëw ma nga ànd ak Sayer Sall bu mbëllëxe ak Maram Sall maa ngi leen di bi mu yegsee sëñ Abdou jawaliwul ci moom dafa jawale ci barabu sëriñ Touba yegg siyaar ko génne kaamilu alxuraan jàng ko moom ñi ma àndal jàngal ko sëriñ bi ba pare doog ñëw ci sëriñ Saliou ñu toog nag ñoom ñaari jàkkaarloo sëriñ bi ni ko dama amee sedd waaye kon maa lay xellil ataaya waaye sëñ Saaliw Ture xiib ataay ji kaas bu mu xel li sëñ Saaliw jël kaas bi fopp ko jox sëñ Cheikh Abdoul Aziz bu naanee kaas bu ma noppi sadd ko ay woy Saaliw Ture ngay ca wetam malaay wala keroog sëñ Saaliw mu baax nii daf ko ni sëriñ bi day fekk na Cheikh Jaaji Malick Ndar ñu ne ko ma nga kër tafsir Mubarak Gaye maami Maodo sëriñ bi ñëw nuyoon teeg moom si jaaji malik nuyoon teg sëriñ tubaa jàng jenn laaye sëriñ bi ni ko waxaat ko mu wax ko ñu laxasoo ñoom ñaar loolu mooy réew mi loolu mooy Sénégal loolu moo fi sax nga gis àlla jàbb magoon xalifa yëpp tey seeti ñëpp fekkoon na tarixa yi def ay frontière àlla jàbb du ñaggi ko kon réew maa ngi nii jàmm suñ ko bëggee am tey ëllëg dañu kennal Serigne Touba. dëgg Serigne Touba ñim mu jamono teewoon ko nangul waye borom ngot. borom ñappandal waaw borom xabaat borom jur borom daka xay gogu mu tok fi mu dëkk gaynde jissal na maam àll di ko dàq. ba fek sëñ bi bind ma labul foofu tey mu mu téye xalimaam jàkkaarloog mbam àll gi jakarlo gaynde gi gaynde gi ni wagnat mbam àll gi jaar ni sëñ bi téye mbam mbaam gi fangat allah keroog bang mu koy nettali ba mu sëñ Saliou. waaw da far da caa jële jël mhm. da koy nettali ni sàllaaw fii la woon sama kër gi këram daal ni sàllaaw fii tolloog sama fenêtre bi la ko tedd ki toogoon sàllaaw bi muy bind de ba àgg ci wa maska nii sallim minal fujjaari nee na ci la mbaam àll ndaw ba agsi ki sëñ Tuuba daal di koy sëf ay tànkam di wut wàllu ci gaynde gi koy toog mu ni sàllaaw ko tedd ki bi ne bërët xool ko gaynde gi daal tiit jaar soowu mbaam àll mi jaar penku daa ne ku leen di tàqalee noonu de xanaa mën naa tàqale jàmm diggam de ak sawar ëllëg mu ne ko waaw Mbàkke mu daal di tuur xéwale jataay bi daal fay sa micro sa micro maanaam dama am tawfeex ju juree ci moom sëriñ Saliou kër sëñ Soy bu dama njëkk a jox xaalis fekk sëñ sëñ Soy bu wool woon ma weeru koor 91 di ma jàngaloo keroog bi ma ko wuysee ah, bi ne koor gi suba la ni seen suba la ni um booba la fa sëñ Saliou ñëw sëñ bi maa ko wuy si guddi bi ma ñëwee maam Balla bu sa jàllale ma ci moom maa koy siyaare bu baax mu ne ko Ablaye ma nga doon laaj de ñëw na ay gore ñëw na moo nekk nii defe ne sax mag la mu ne ko waaw moo nekk nii de mu jàmmanteeg man ba ci àgg mu ne Balla yóbbul ma ko bu dallu ba suba nga indil ma ko bi ma xëysee ndekete sëñ Saliou moom moo ñu fi jiitu mm. ma ñëw ma Balla ni ko Ablaye da ñëw na mu ne ko nekk na toll ci eh, foofu eh, palanteer boobu ñu jàng mhm. may jàng di jàng-jàng ba añ jot ñu indil ma añ ma xew ne su tuut ma commencé waat di jàng mhm. ba may jàng ba ci yàgg laa gis sëriñ son yi bu loxo bi nii gisuma eh, gisuma jëm xar kanam bi loxo bi laa gis muy ubbi sëñ Saliou mi koy gunge waaye gunge wu ko ci da ko ubbi rek ngir sa bi génn tàggatoo nañ ci biir ba noppi nestut ma gis sëñ Saliou di dem génn ba génn kees gu njëkk nestut mu ñëwaat ma den daa soxlawaat sëñ Soy bu waaxu wut si ci man lamb lii jiba ji jox ma xaalis keroog la ma njëkk jox xaar katanoos Cheikh Béthio Thioune mi ngi ci woon ak ak sëñ Saliou si ba ba ba sëñ bi wàccee liggéey ba ma njëkkee dem këram daa am ku ma fay jàng mu am ku mu yónni ni ko demal le nemmikul ma ko kooku nur nur na jànkatu sëñ Soy ba defe naa ne góor a jéey la woon wala kenn ci moo fekk may jàng mu déye ma ko chauffeur sëñ Saliou. waaw kenn la ci ñoom mu ñëw déema ne nga sëñ bi daa dégg sa kàddu ne na la nemmiku bu dee jànkatu sëñ sooy bu noppee ngeen wax ko mu ñëw keroog ba ma ba ma ba ma jàngee ba nopp ba ma ñëwee wuy si ko mu ne ma ñëw luy sëñ bi ba ma ñëwee ma ne ah yow de seen borom taw feex yow de seen na ko bëgg amoon woon jotug déglu ak ki ko def ni mu ko ni mu ko li ngeen doon wax di doomi sëñ Tuubaa lu xelam nekk rek ñaare suñu borom da koy teewal ci kanam ah. am na bis seni Moussa am sëñ Abdou khadim ñoo ngi koy siyaare bakki Balla ko siyaare mbaax ak sëñ Cheikh suñu khalifa am ak sëriñ Cheikh basirou mbak kérok dama tukki jogé Italie Europe xom fu ma jigon ci Europe bima ñibisé ma wo sëriñ Moussa am sëñ Abdou khadim xoma lu wolo dama ko wo ma wo ko bima ma mu ne ma kooku Ablaye man ko ah am nga tawfik bima doon ni man ko ma ngi Dakar mun dirul na nga ñew de dirul ma and ak sama soxna sama awa ak sama rakki ci man ma ñëw di woo Moussa Sarr maa ngi koy siyaare ni ko dama bañ nga fay sa téléphone bu ma julee fajar damay ñëw jàng si Moussa ni ma duma ko fay bi ma ñëwee may jàng di jàng-jàng ba mu naaj ñu ubbi na ñëw luy sëñ bi bi ma ñëwee sëñ bi daal di ne ah rek ñu la doon tudd de Salaw ñu ngi doon tudd daal di woo góor a jóob moo nekkoon njurul mu dugg ci biir ma gis ko mu génne euh, lu muur jox ko sëñ Saliou ndekete garam bubu la sëñ Saliou jox ma garam bubu maa nga ne sama kër Daaru Salaam ak xaalis bu bari mhm. ak xewal yu bari mhm. noonu laa def ak sëñ Mourtala Mbacke ñëw na sama kër waaw fekke naa sëñ Mourtala jërëjëf nee na muy jàng moom sëñ Mourtala e, ci e, Italie sëñ Mourtala génne xaalis ne ma na ni del gaaw dem ci moom baat baa nga suufe bu mu suufe na yëkkati bu yëkkatee bu baat bi bëgg a wàcc sëñ bi yëkkati waat xaalis ni ma gaawal bat ba شوفي soufé déjà khairat din wa zaidun khalil habib mislu نجون قريب شاكر وهو شاكر جواد كريم بالمكارم يحسن نقي تقي صالح وهو مشلون بشيما لله بالحق نبيون اديبون نبي أديب زحاء نزير من بالكفر وشرك يوم لنوح نزل بالعاكس عليم معلم شيخ بلا من كلام إليه نوح نجيب عجيب ناسب وهو ناسك هو الأمر الناشب لزي الخالد منه نقيب رقيب نبي رسول خير عبد وزيد خليل حبيب مسلوك nee na moom. lay na moom jëm la joo xam ne mësut a ku fenn ma mës ci àdduna. nga nee na jëm la juy déyanteeg yàlla. ak a jege yàlla sunu borom. nee na kuy tudd yàlla la. mooy sant yàlla fu mu toll. la woon. ak a tedd. waaye jikko yu tedd yi. ci la waaje ne ba rafet. ku set wicc la. ragal yàlla. dafa yiiw. mooy ku yéwénal. kuy bégal ñëpp. koo xam ne da ngaa ñëw te yàlla tax te nekk ci mooy moom la moom la ku ñu yee la adibun ku yaru la zu hayain ku bari kersa la muhasabun ne ku civilisé la jëm la woon joo xam ne day day xup day xup day xup ku ñëw andi kéefër koo xam ne daa indi ak kéefër koo xam ne daa indi kéefër da lay xupp jëm la juy laa bire koo xam ne dalay jox. Ah, teraanga dalay jox teraanga te du la du la ñàkk. jëmm la juy jàngale. tabe la boo xam ni tabe la boo xam ni. sax waaw. عرب ناصب وهو ناسق هو الامر ناحل لسه الخريج منه نقيب نقيب موي موي بك نيك بي رقيب mooy ku jege yàlla tufu mustajibun nee na jëmm la joo xam dafa yiw mustasibun a xam ni dañ koo yiiwalal ci lépp malaasun wéeruwaay la wa maaxin moom yanantu bi lay wax da daal fat setal bàkkaar ba mu set wa muxsin jëmm la joo xam day rafetal nasibun jëmm la joo xam ni dafa am cër bu rëy di ko jox jàmm yi asibun jëmm la ju réglé boppam suuta boroomi may la mu xaddam moom. borom mi may la ku ñu jiital la. mu xaddam moom. boo bëggee xam ne Moustapha jiitu. huwa naasu. da ngay téye loolu rek ma wax la ni. huwa naasu. da ngay téye ni moom nit ñëpp la représenté. huwa naasu. te loolu ñëpp a ko nangu. huwa naasu. Victor Hugo tubaab la nangu. huwa naasu. nee na il jeûnait plus longtemps. huwa naasu. construit les jours de jeûne. huwa naasu. quoi qu'il perdit sa force. huwa naasu. et qu'il ne fut plus jeune. huwa naasu. à 63 ans. huwa naasu. une fièvre le prit. huwa naasu. Il relit le Coran. De sa main même écrit. Oui, il remit au fils de Saïd la bannière en lui disant Je touche à mon noble dernière. Il n'est pas d'autre Dieu que Dieu. Combat pour lui. Soko ko xam. laaj Russie la la religion de Mohammed. de personnes d'accord avec la raison. et la sagesse. s'étendra à l'avenir sur tout le monde entier. Soko ko xamul laaj la maa المغير هو المصطفى المختار وهو المغير والبكاء قبل البرايا خدم قلب لو شبخو ينا الجب حلو الجب في دنيا وصلوا يجي في ادم امكون نجيب دون نينا يرنت بي يجي في ادم امكون نجيب دون جم لا جو خامني يالا كو ديف سانغ مجيب دون جم لا ياك يالا ماغال موسلون موم مصطفى لا نيب مغلانتا ماني لامارتين ولا نيب دال Martin Wayne, Desdemona, ele Elimas Parce que les plus fameux n'ont remué que des lois, que des empires. Ils n'ont fondé que des puissances matérielles Mais celui-là, Mohammed, a remué des armées, des législations des empires, des dynasties, des millions, des millions Il a de des des des religions, des idées. Il a fondé sur un livre, dans chaque lettre est nationalité La prière sans يطوي كوني حضر بي خدمه مصطفى بعمري ودار وتنوح نويت مالك سيراح شكرا لخدمة لخير وراء لخير وراء نحمل نخفى المين كتبت خلاف على غسان وشرقاح كتبت وكل فارغ غسان وشرقاح وقبل سرعة ربي نسيبي وتاتركا كرامي ونيتي وفيانلي توجهت إلى من كفاني سواح ودروما شكا كفاني حفيظ مانون جملة ويندا ولي خادح أحبابا بوسر النساء كتبت وقصدي شكرا بن خاتبا لمن حبه أنكلكلي زعزادا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله والحمد لله رب العالمين جارا مسيح برفال جارا جارا جارا جارا مسيح برفال جارا جارا مسيح جارا مسيح jaaraama Cheikh Ibra Fall jaaraama Cheikh jaaraama Cheikh jaaraama Cheikh Ibra Fall lomp nga bee Bamba leer nga réew mi yaa Kamal Fall yal na nga doole bërëx jaaraama nay Seynabu Njaay lu soxna jaara lu xeex diggante njukki ak jëme tin dañ daa suloo ko fali bur, ya tax mu jëbal sa teel faan da nga yaa yi pexem Cheikh Ibra Fall yaa tax mu du faal seer ñaay biran jibi cangaay kur jëgg baay laa la faal maami Cheikh moo du faal Cheikh Ibra Fall bu ñëw mbàkk bawal daf ni no kër ga bàyyi wal nay wal ko joxe Cheikh bu bu yaa yóbbu mbaaxaan jaxafoor yaa tabaxul bu dootu fuur faal ndëgg yaa rii pexe yaa taxaw Abdoulaye xaar taxaw ji bunt dafa xaar woyof lu bay lakk Dakar faal ndëgg yaa rii pexe si xibra faal jaaraama seex jaaraama jaaraama si xibra faal jógal jógal jógal jaaraama jógal jógal jaaraama jaaraama jaaraama si xibra faal daa bay maam say njaay borom wax jaaraama seex jaraama mis bi commencé wala sama sëriñ jaar ndépp jaraama seex jaraama jaraama jaraama jaraama Cheikh Ibra Fall Amar Fall Sayer Ndiaye Fall Mbakke xam na la dëgg la Cheikh Ibra Fall Alaaji Fall Mbakke xam na la dëgg la juma jaw saar na la lopp ngi nii téem na ku ne sooral lu maanam bu Fall la ni saa baay Seex Ibra Faal ngi nii soraar soraar soraar bu na naan lamp faal la ni saa baay Seex Ibra Faal ngi nii si Alaaji Faal Mbakke ah. xam na la dëgg la Cheikh Sarr daanu na lamp ngi nii tim na ko ne dëgg la soraar bi nu naan lamp faal dëgg la tee ko bàyyi dëgg la Ibra Faal ngi nii jaaraama sëñ sëñ bu Njaay jaaraama jaaraama ne sëñ bu Njaay li soxna jaara yar jaay yaa ko ñamal waa jara njaay saw nga ñu na yaa texe jaram la ilaha illallah la ilaha illallah yaa tax ba xol ba dootu fóor la teel teel xolu na teel teel yal na Sëriñ Tuubaa na defar ak sa batinan abana ah, wa habala bil Musa ak Musa te tàggu Buusa jaar yaa bënn <laughs> mbambulaan mu naan wal wal. ah ñëwal nag. fi kenn ku mar. dëgg la. gantu tay a wal. Eh, soxna jaar yaabu ni géej. Hmm. mbambulaan wal wal. ah. déggatu fi kenn ku mar. gantu tay a wal. amul soxna bu sa fee soxna bu way fi ngeen gëlëñ naa way. Ah. ñoo ma jàppale ba. ana waa asaabul janna soxna di. waa bu soobee. soxna jaar yaa ba liggéey. dëgg la bambulaat wal wal. ko tuuti kenn ko mar mbaa. ku gantu tey bañ a wal. wande wal mi dem na fu ne. gën gi ceebu day gëndale. ñun nangook. ñu gàntulu tee fépp fépp lay darale ku yebu tex ku yebu bañ parce que bañ gàntarawul ñoo ko gëm danay texe ni ngeen ngi teema faaw ma wal soxna jaar bu sooy bu sa baali soxna jaar bu sooy bu sa baali soxna jaar bu sooy jaar sa doom ji jar na soppi ko maa ba ndi xalam ak riiti jar na fecc ba yaaba soxna jaar bu aayee Hmm. donc yëpp ay rakkaaju. wallaay dañ gërëb ya. ak a dóoru kenn du ca yaa nanu sëriñ bi. waaw boo dimbali téléphone taw feex. Cheikh Akassa. Mbacké. dañu am mbégte. jërëjëf. da ngay ci Cheikh Ibra. te gis nga te eh, studio bi jaxasoo na. Mm-hmm. sëñ Modou Amin Tafal. mu dugg ñu jëm Gabon mu ànd ak Cheikh Mamadou doomu Serigne Touba. naka mu dugg rek ñu indil ko première classe la war a toog dend sëñ bi sëñ mu rabin sa dugg rek gis Cheikh Mourtala dem ba ca catal avion ba mu toog ci suuf nu nu de yaa ngi te woon de nu dem wax wax mu ne du tooganoo mukk ak Cheikh Mourtala dëgg la moo tax Cheikh Ibra dafa gëm sëñ bam ba dëgg la dëgg la dëgg la sëñ bi day attaaya benn sërifu naar toog sëriñ bi xel ni jëpp Cheikh Ibrahima Fall kaas ni ko rasulaay la ko jox. dëgg la mën ne ko baax na lool noo mel yow waaye jox ko mbokkum naaram mii man yow rek laa bëgg. Alaaji Ablaay waaw ñun kontaan nañ lool. walaay walaay. ndax. akasa dañ lay bàyyi nga jugaan rek sëñ bi. c'est du jamais vu. <laughs> dëgg la c'est du lii nii. <laughs> wax dëgg yàlla. dëgg la am naa ci mbégte. walaay. la fois passée jeudi passé ma ñëw fii. fekk uh-huh. fekkuma la fi wax naa leen ni leen. Uh-huh. plateau bu ñuy baatare. Uh-huh. c'est la première fois ma gis ko fii laa ko mos mi nii nii. te. waaw. dama gis Cheikh euh, di la def statut ci téléphone am. waaw di la def statut ba ma koy jëlee ci moom am na ku dugg may mel di ko def bi nga yëkkati sànq ma koy xool ci bët ma ne ko na nga dal naan waaye cofeeram ci maam Cheikh Ibrahima Fall otoom sax boo fa nee moom la fa def macha allah jërëjëf Mbaye Mouhamed uh-huh. maa nga boor rek. waaw tax lu fii uh-huh. ah, sant. tayit it wat sama wax. moy mhm. seen TV. Mhm. jëf jii ñuma defal man yegnako ndax duma daf ta jàng naa te ku soxor du sante dofit du <laughs> waye delu su gi ma wat ak yegle ak ak yàpp ak demande générale mhm. kon nak lolu ñong ci féliciter Bougane bu baax baax ci tir bi wuñu sedd ak am gi ma am confiance ci ñun ba delloo soir ñu ci plateau bi. Mhm. loolu rëy na ci ñun bu loolu jàllee ah damay wax rek El Hadj Abdoulaye Mbaye. waaw Pape mii ma tuddee woon plateau bi. Mhm. dafa jeex ci sëriñ Saliou. waaw Pape Alé dafa baax. man Serigne Saliou bu ñu ci dee wax ma noppi. Mhm. duma gor. dëgg la ndax nu ma mel Serigne Saliou Mbacké la. dëgg la. mu nekk fi. ba ni fi jógee daal yi muy solal dongo yi maa ko koy jox ànd koog murid yi nga xamante ni. yàllaa ma booleeg ñoom ñuy samay soppe. maa ngi nuyu taalibe yi <laughs> sëñ Touba yi. taalibe yi sëñ Touba yi fi fi nit mën a nekk. diaspora bi ak fii yëpp maa ngi leen di nuyu ndax taalibe yi sëñ Touba yi dañu maa bëgg jàpp ma ba noppi jàppale ma. yaa ko def taalibe sëñ Touba nekk mënu maa tudd ñëpp waaye maa ngi ci roj sëñ Cheikh Gueye Mbana du ko jeex ci Serigne Saliou Mbacke. dëgg Cheikh Gueye Mbana dafa jeex ci Serigne Saliou de trop ak papa Aliou Gueye mi ma tuddee woon émission bi. Uh-huh. di leen mu baax mi nga xamante ni Cheikh Ibra Fall bi ñu doon jàng maa ngi ko ciy saare ndax moom Cheikh Ibra rek lay noyee bu baax a baax bu loolu jàllee. dafa mbokkum mbokku taalibe bu baax mu tudd Baye Tam création mu ñëw ni ma dàll yi de maa ko jox seen TV man xaw ma ko ma koy jox waaye seen TV laa ko jox <laughs> yow yóbbaaleel ma ko <laughs> dàll yaa ngi ma teg. Uh-huh. ak maxu maxu uh, bijoutier. Uh-huh. maxa bijoutier uh-huh. yónnee na fi teraanga jox ma ko nii. kurusu argent. Ah, ñoo ngi koy ñoo ngi koy kurusu argent la neen. Uh-huh, uh-huh. yaa ko moom. ma ma ma xam bijoutier kurusu xaalis. Uh-huh. ah mag maa ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal suñ borom defal ko tawféexi biir ak biti. Serigne Saliou Mbacké. dama leen ci wax benn baat bu ngeen mus sa dégg fenn. te man nii ma mel. Hmm. moo ma ko def. ak ñu bari ak ñun. tey jii laa door a xam ni man. wàllu yu kamal laa. Ah. tey. tey laa ko xam tey. la ilaha illallah. bi ma julli tàkkusaan laa toog ak xale bu ñu daan Amsatu Diop nu ko Amsatu mu ne Mbàkke mu ne ko sëñ Ablaye Seck damaa bëggoon ñu invité ko ci invitation yi ñuy invité. sama xol lool doo nga ci nekk. dëgg la. bi ma ñëwee mu fekk ma fi te yëgu ma ne mi ngi fii ñëw. dëgg la tey laa confirmé loolu. man xam naa ne lu ma dugg. lu ma yëg am na suñu borom yëg yëgle ma ko. Ah. keroog président Ablaye Wade ba mu ñëwee Touba di tàggoo damaa taxaw ci buntu jumaa ja ne leen def ngeen defoo de te ngeen ko rëccu. waye rëccu nañ ko it. wallahi ndax taalibe seigne touba bob ak njambaram ak fitam ak ngoram ak deggom ak jeexam ci seigne touba tak ma ngi ko ñaanal mu gudd fan te yàgg fii. amin amin par exemple lay wat. jërëjëf waaye Serigne ni nu mel moma mo ñu jox xadar bi ñu amé ci yàlla. ci l'islam ak ci diine ak gëm yàlla ak gëm suñu bop amna lu bari lo xamanteni du ak ndof de wala du ak yara diko waye xam sa bop la téye nak ndax nit ñi bo leen joxe sa bop ñu noti ko. ba mu yàqu ñu sànni ko fa boo dee nit nag te xam ni sa bopp lay jariñ àdduna ak alaxira da koy téye teel ko sa bopp palaato bi weesu nag alaaji Ablaye Laan mhm. dama fay juum njuum te lu rëy mhm. ndax ba may sant Seex Murtala Fàllilu mhm. damaa xaabaabal rek sant ga xaabaabal ba bari <laughs> ma ne mbooleem ku sant Mbàkke Seex Murtala Fàllilu rek mu ci mucc moo sa dimbali te noonu ma ko waxee dëgg la waaye waxen wax ca laa juum. Mhm. maa ngi koy mhm. jégalu mbokki taalibe yëpp. dëgg jégal ak mbokki mbindeef yëpp. ak ñoom bokk seen tubaab yëpp xir rek. waaye waaye cant ga. moo rëy ci jëlu murid la bokk. dëgg la loolu jël rek la. waaye du lenn ndax bi ma nekkee Touba. jërëjëf xale bi ma njëkk a dawalal. doomi sëñ Cheikh Góobe la di di sëñ Mbàkke ma nga ca Argentine léegi nekk sama chauffeur. Mhm. di ma conduire di ma yóbbu maa ko yar ba mu màgg. def ci moom samay jukko ba wutal ko soxna <laughs> sëñ Mbàkke di doomi sëñ Cheikh Góobe maa ngi siyaare xalifaam ba sëñ Abdoul Ahad Mbacké te ñooñu contribuer nañ ci sama dund lu baree bari moom moo ma ci gën a tuuti sax sëñ Mbacké nga xam ne doom la ci man ñu jox ma ko ma yar ko ba mu nekk magum jëmm mhm. kon kooku jëfal na ma jëf joo xamante ni. Mhm. kenn mënu koo xeyaas waxuma laa ak ñi ci des nag. ñoo ngi sant bu baax. di gërëm bu baax. jërëjëf bisimilah. jërëjëf. <laughs> ñu dellu si waat ci waxtaan bi rek. waaw ah, papa jërëjëf. Mhm. ñuy jaajëfal bu baax euh, ak saa. ak euh, sama turandoo bi lay Seck. xanaa dellu si rek euh, ci Serigne Saliou Mbacké. Mhm. Ibn Cheikhul Khadim. Soxna Ndeye Mbacké. moom Serigne Mamor Massamba woo na ma léegi nee na mu ngi ànd ak ñun nee na mu ngi nuyu bu baax euh, seen taalibe bi nekk ci plateau bi di Ndey Dime Mor Mor moom sëñ Abdou Khadir itam ak soxna Mam faati Xoll woote nañ soxna Mayloo Jili Ñang bu TFM ak euh, Am Diop bu Touba TV Serigne Takku njaay bu Mbari àll Ndiaye nekk Touba Ndiame Diop moom Serigne Saliou

waaw waaw Serigne Saliou euh, ndamal Serigne Touba la teg ci ko suuf euh, yi sëriñ Touba gën a bëgg muy alquran ndax sëñ Touba la daan nangu ci loxoom du nangu xaalis soxlawul xaalis sëñ sàmba jaaro mbay nee na bëggul wurus bëggul xaalis faalewul nag ak doom gëléem ki sëfam la daan jox naari gànnaar li mu gën a bëgg di ko nangu ci loxoom di alquran sëñ Saliou da cee def liggéey boo xam ni benn rek la ci kaw suuf. fexe ba def ko ci ay bopp yu bari ay junni junni fexe ba wut ay mag ñu maandu yar leen defar liin ba ñu sampaat ay daara ci ginnaawam xool li mu defar ci ay mag sëñ Saaliwu Ture mu baax mi nga tudd léegi rek nga xam ne làmp la boo xam ni jafal na Cees gépp ak li ko wër waaw te sëñ Saali woo ko yar tudde ko boppam jàngalal ko boppam jox ko ndigalu jàngale wóolu ko ci yu baree baree baree bari séq koog moom xoola ko mel ni alaaji Ibrahima ñang na meloon ca mbuur xoola ko mel ni alaaji no Fall ni mu mel xoola Seex Béthio mii nga xam ni Sëriñ Saaliw jox na ko loo xam ni puissance bi jaaxal na képp koy xalaat daa dem ba moom sax da koo yéem wax na ko ba tay ne lii ma am ci sëñ Saaliw jomb na ma teraanga yépp jox na ko ci àdduna lu ne liggéey la ko Sëriñ baax kon loolu wane na moom Sëriñ Saaliw dafa defar ay nit te arab yi dañu wax ni li baax di baax baax am na mbaax gu bon bon tam li muy bon bon am na mbon gu baax ñu ni bon gu baax mooy bon goo yemale sa bopp yàqoo ci keneen mbaax gu bon mooy mbaax goo yemale sa bopp képp mënoo defar kenn sëñ Saaliw nag mbaax gi mu am daal lan di wër adduna loo gis tey ci réew mi fu dara di tàkke wala mu fay neex dara di fa am sëñ Saaliw fa dugal loxo loolu rek kon day réalisation bu rëy taxawu jumaayu sëriñ Touba ji taxawu tuubaa taxawu njaboot ji taxawu hôpitaux yi taxawu jarag yi taxawu lotissement bi taxawu ndonga daara yi dimbali ñëpp yar leen defar ay nit ñu jub tay xale yi liggéey yëpp ci dëkk bi koo romb sëñ Saliou wa pare ci ma nga xam ne du dem fenn di tàllal loxoom ndongaam yàpp piir la daan xewlu wata boor du ñu yalwaan mukk teraanga jëpp am nan kon yàlla na yàlla fayal Serigne Saliou te yàggal fi bu baax sëriñ Cheikh Saliou ndax moom kat bi mu ñëwee wuutu ko ku nekk xam na ni fu sëñ Saliou tegoon liggéey bi yëkkati na ko gën koo yëkkati jumaa yu rafet yi ngay romb ci réew mépp sëñ Cheikh Saliou loolu ku ne mën na koo waat ci réew mi station fu ñu ko dàkkoon ni fa lañ koy def ñaare fi ñu daan xalaat station la def néegi yàlla ñëpp xalaat yàlla julli loolu liggéeyu sañ seex Saliou stade fu ñu ko xalaatoon néegu bi yàlla la fa def te su jëf rëyee sañ Cheikh Saliou te wax ju néew bari xam-xam jàng lool maandu lool dal lool nuru sëñ saaliwu taxaw njabootam gépp manqué wu ñu dara xoolal sëñ Moustapha Saliou xam-xam bi xoolal sëñ Basiiru ak maandu geeg mbaax gi xoolal sëñ Jiili ba ci sëñ Muttalaa mii caatam ku nekk yar na la jàngal la ba nga mel na nga war a mel sëtam yéeg ñëpp ay borom yi xam-xam lañ képp ku ma a jege sëriñ Saaliw tey ñu ngi lay topp dimbali ay këri këri kër maa ngi siyaare alaaji Abdoulaye Tage ak soxnaam soxna Moomi Kebe soxna Moomi Kebe ndax ku tudd Serigne Saliou tudd Alaaji Abdoulaye Teg lépp wax Serigne Saliou maa ngi koy siyaar bu baax waaw waaw ah bu baax mm-hmm. Serigne Moussa Camara mm-hmm. Cheikh sa Camara moom it sëñ Saliou la ba jeex tàkk kon ñi mu taal ci réew mi xoolal sëñ Makhtar Diouf Pedro ni mel sëñ Saliou wax naa ko léegi kenn xamul nu mu toll yàlla na nu yàlla fayal sëriñ Saliou amiin amiin amiin ñu ngi nuyu bu baax sëriñ Cheikhouna Mbacké mu sëriñ Asfali ba baax lool ak fonk na lool nu ngi koy ziyaar ñu ngi nuyu bu baax sëñ Modou Mamoun mu sëñ Fall oo na ma bërki démb te loolu kat lu ma jomb la dafa yàgg te wér di ziyaare sëñ Cheikh Oumy nu ngi nuyu bu baax sëñ Ndaam Atta mi tooge toogaay sëñ Ibrahima. ci lañ jëm après ñoom ñëpp ñëw danañ ñëw ci. waa di ziyaara bu baax oustaz Souleymane Samb. Mhm. di sama lépp di cëslaay ci man di xarit ci man di sëriñ ci man. Mhm. ziyaare sëñ Fallou Diop fii ci Medina moo njabootam gépp di ziyaare sëñ Jiili Mbàkke day sama soppe. Mhm. nekk fële ca Kayaar bëgg ma lool moo njabootam gépp maa ngi koy ziyaar bu baax naka noonu sëñ Mahmadan Mbàkke mu sëñ Abdoulaat nu ngi koy siyaar di ko déggee bu baax di siyaari sëñ Mahmadan Mbàkke Diyooli day seetu sëñ Abdou Dia Mbàkke Diyooli sama wéejur wu jigéen bi muy wàcc daf maa fekk Atlanta Amérique waaye yàlla xam na ko moo taxawu sama wéejur defal ko lépp muy nit ku baax maa ngi siyaare njabootu sëñ Abdou Dia Mbàkke Diyooli gépp sëriñ Saaliw li ñu ci wax léegi fépp loo fa gis moom la man mii ku ñuy wax sëñ Fàllu Gay ne ca Géejawaay di def gàmm bi moo ma ànd dem seeti sëriñ Saaliw keroog ba nu ñëwee dama ko man day mbàkke dama bëgg lii sëriñ Touba def ci man tam wóor ma ne yaa ko ci def yaay sëñ Touba dama am yéene bokkook jàmm ñëpp bëggoon woote di yaatu ci réew yëpp ma ciy dem mun na nga ci rafet njort ñetti yoon ñu ma dégg naa ko léeg ma wàcc ci réew boo xam ni jàppoon naan du fa teg tànk fi mu ne réew yi ma dem moo ëpp réew yi ma demul continent yëpp dem na te loolu sëñ saaliwoo ma ko defal waaw kon sëñ Saliou ku ci waxtaan doo jeexal

ni ko duy nga xale yi duy nga mag ñëpp ba ñu fees lii la wax sëñ Touba duy nga mag ñëpp ba mag ñëpp fees na ndax sëñ Touba li mu duy ciy mag kenn mënu ko lim jataay yi ma ko mayul waaye man naa fii ma toog ñaar téeméeri mag ku ne ma waxtaan ci moom mën naa ko fii ma toog te la ma ca xamut ëpp fuuf la ma ca xam nga xam ni tey ay junni lañu te mag ñëpp sañ Touba leen def mu ne ko nag duy nga mag ñi ba nu fees ndaw ñee des duyal ndaw ñi lii la wax sëñ Touba sëñ Touba daal di dellu ko Sallaw Touré dinaa duy ndaw ñi su ma leen duy Saliou laay tot laa yor turam Saliou laay tudd duy ndaw ñi. waaw loolu mooy mooy li mhm. loolu mu ko ni bu may duw ndaw ñi. waaw sëriñ Saliou moo leen di duy. waaw sëñ Abdou Wudot Mbakke eh, tubaarkalla eh, jiidi Mbakkeem sëñ Abdou Wudot. ñoom ñoom ñëpp ñu ngi woote. ak sëñ Moussa ak ak nag jàmbaar yi sëñ Moustapha Karam. di kenn. waaw ak nag Cheikh Abdoul Karim borom makarim al axlaax ñoom it ñi ngi jàkkaarloo nun mhm. te sëñ Abdou Karim day kenn ci kër gi moom dafa woo senti wi sëñ Abdou Karim bëgg bugaan ba bis bii ma ko tuddee ci peex dafa ma ne ma sëñ Abdou Xaadir da tax danaa la teral waaye danaa ci boole bugaan kon moom itam ak njabootu sëñ Fallou gi Cheikh Abdoul Fatah. maa ngi ziar sëñ Fallou mi nga tudd léegi. dë sëñ Fallou Mbacké. dëgg la mu sëñ Abdoul Wadoot. Mhm. mu sëriñ Mouhamadou Farimata. dëgg la mu sëñ Afia. dëgg la maa ngi leen di ziar ñoom ñëpp. Ah, di ziare Soxna Baali. Mhm. Ah, magam ju baax jooju. Mhm. ziare sëñ Jiili. ziare waa kër gi waaye ziare Soxna Daba Fall. Ah, moom sëñ Mortala Fall Soxna Daba. kone xam na ni sëñ Moustapha Saliou moo ko yor. yàlla dogal ci la amub taawam di soxna Bousso Mbacke mi nga xam ni sama sëriñ ña ko yor di sëñ Amsatu mu sëriñ son yi sa micro dafa nañu ko defaral micro bi eh, soxna ne waa dañu dañu bu ñu jógee càkkasaa nag uh-huh. xam nga ne njabootu sëñ Bàmba gi fokk nu nu matal waaw ndax sa eh, Ablaye sëñ Ibra sëñ Ibrahima Mbacke mm-hmm. ak Cheikh Abdoulahi borom jën joor ndox mm-hmm. ak Cheikh Mamadou Bachir uh-huh. waaye nag ak nag ki mujj ñëpp ci sëñ Bàmba tam néeg boo ci duggee fàcc seen montor laaj ko këla fa mujjoon mu Cheikh Amadou Mourtada ki tasaare diine ji ci Afrique ak ci Europe. danañ ñëw ci ñoom ñëpp coo coo coo ci la ñu war a ñëw Abdoulaye ci ñoom ñëpp. Mhm. Euh, waaw pour buy jàngaat. Mhm. pour mu jàngaat euh, tuuti ah. mu ñëwal ñu ci jazaaw sax. baax na mhm. incha allah. waaw ah, loolu daf may daaneel te day daaneel murid yu bari. bàyyi ko xam nga xam nga nit dina la mën. bu yàgg te xamoo soxna faatu Jaxate nee nañ mooy soxna bi gënoon jege Serigne Touba. moo tax man la nit dina la mën bu yàgg te doo ko mhm. xam. waaw moo tax kenn du Serigne Saliou. Saliou jërëjëf ñëwal ma ci euh, Jazaaw Chakour yoonu géej kon euh, ñu delluwaat kàddu gi ak Assa door a ñëw nag ci njabootug sëñ Touba gi nga xam li ko dalee ci sëñ Baara. ma may ko sama xarit la Xaadimu Rasuul ba ci Serigne Mouhamadou Mourtala mi ngi caatum Serigne Touba Xaadimu Rasuul. ma may ko sama xarit kon ak Assa bisimilah. daaw <laughs> la bàyyam xëy Mbàkke xëy mbàkke baari gaaw la gonte daaru jëm gànnaar roy na la baayam digle woon ci réew mi budul ko nag moom duma wayli man mi pendal mu gën tubay la jar na araamal meeteel ga moo gën kaa leñ araamal déglul ma wax ba seexu bamba gonte fa war pake ngir yeneen ba min ahli sodaani ilal bidaani ngir ba garam ruy fil jinaani ngoonuk talaata seex bamba dugg na gaal gunu naan ban fanaani dagana talaata jaay fanweeri fan ca wa du sanku naan fa sangaak tàngoor wa ma wax la gaay sant woon jëm gànnaar ànd ak te ñëpp jàmbaar jëkkër sëriñ afe rek moo jiitu sëriñ ma mar pendaay la xam duwaate sëriñ ma samba xari joob ak see xari joob ak njugu njaay moor xari ñang day togg ceeb keroog la seex keroog la seex ma sii sa ndongo dikk taxaw fikkan mu sëriñ Tuubaa neb dongo ni ko bi dama bëggoon nga def ma mu sa takk ndeer bi foo jëm na ànd may lal sa der bi mu ne ko dellul mu siin sa dellul dellul mu siin sa dellul dellul te ngeen nag mu daal ma naan te xam ne man Sëriñ Tuubaa léegi ma ñëw bis rahman laa def ma la shay an bi xëyri li is ni fatinu sartun fi xaboli charmi ma siin sa nanga xanaa xamoo ni man sëriñ Tuuba ku topp sama ndigal di bàyyi la may tere laa sore sore yaa fi man dootoo sori koo xam ne doo topp ndigal daa bàyyi tere laa ma jegeñ jegeñ jegeñ yaay ka sori na ci sabab am na ci man am na fi man bokkun ay payin yéen mu di fi sa man ku ne ci boppam ñu bàyyi laa sa bopp dun yaa woox raa nga fëreeg sa yëpp benn nga def lu baax borom jinaani wala nga def lu bon ba dem niraani ansina laaw minan niraani bi jaay xale xaalxi fil addanaani ku na ci man man ci mom te yor ko adna ak akhirah far defal ko sam ko ram ko mu defal ko jebal ko ndal maka mu far de ko ku ne fi man ngir ko mek sa yirsi ma jox la yooyu sama batim delsi yàlla ni man kaana yuridu yàlla man kaana yuridu yàlla ni man kaana yuridu yàlla ni man kaana yuridu lam wax ca alxuraan lay def ma siisi nit a sax ca moomaat la si amu siyeesa ndonga dem ba xabaan bay fa boole yalwaan ca moomaat la si amu siyeesa ndonga xabaan dem xabaan bay fa boole yalwaan amul ca mbay ma lu du benn dërëm mu xam ne yàlla ko dagal ca am ma mu fab dërëm bu yóbbu gànnaar yóbbu ko Sëriñ Tuubaa mu dolli ko waar loolu yàlla mooy laaj mi nag Seex Bamba Seex Ibra Faal Mudu Faal Seer Njaay biran jibi cangaay kur jëkk bàyyi laa la faal ami Seex Moodu Faal faal yónnee fa junni bés ba Sëriñ Asan Caam moo ko yóbbu gànnaar ci ndigalal Seex Rayma Faal may jàmbaar Seex Bamba naan muride kaay leen saara ndax junni bi dërëm bi lay saara borom dërëm bi yéen war na junni te man sëriñ Tuuba loo waaye na fol koy junni naan masalu les na yéen fi xoon yàlla xalax mooy fay di fol te noona mi atun xabatin lay xoon ci te nga xam ne guba ëpp loola fap dala xamal mooy borom da saawu dangoy man da saawu la seex keroog la seex seex bamba yoon na waal keroog la seex seex bamba yoon na waal kër ma seex bamba yónnee waalo Cheikh mu dikk ànd ak mbooloo Cheikh Modou Gueye Koll limal Njaay roqi Ahmadu Lo Masamba Njaay mu waqi mook sunu maam Ceerno mook sunu maam sunu maam Ceerno Ibra Faat mook sunu maam Ceerno Ibra Faat ah. la bamba waawandoo yaar Ibrahima bun leen toppandoo danaa la wax leen la sëriñ ba sant ban demee gànnaar ku nekk sant na ngeen ma dégluwaat tuub bi xol yi jëme ci Seex Bamba xalaam ci xel yi ma wax leen xibaari gànnaar ca gàddi Seex Sidi Sibtil Muxtaar ak la fa xew ca di fii soo daan yéen teer bambam bi daan ak la xew ci buure àndaan ak mbaaxaan te dara jëy xeer wara adnaan badana bismillah demin xaasimi rabbi bi jeexal Mustafa ibn Asim Seex Bamba Seex Bamba Séex Bamba Sëriñ Tuubaa tasaare xel na ko mboolem buur di kon fu ma naan bëgg ren seex ya ñaa foli nanu leen yéen wuure jébbalu ñaa alku bu dee defe xilee du nappalu laa nat leen xuluba wala daanu salaamu neel bay daanu wa soo daanu lamin illi amilu wala xiyaalu xaalal wadaal wa silu wan mbambaa ka boobu ci réewum gànnaar mbal ma ca ngay singi mbuur su xare daan fépp lay jaar looloo taxoon mooy daa teg rabbana noo alana te moom du jàpp naan bana ruu yëpp ruu yëpp man Seex Bamba jàpp naa leen fii saa yirin wa baatin moom naa leen am na ci yoo xam ne dinaa leen dàkku am na juróo yoo xam ne danaa leen sëlbu am na juróo yoo xam ne danaa leen yëlbu am na juróo yoo xam ne danaa leen yóbbu ba fa ma jëm ma bool leen ak rabbu am na ci ñoo xam ne danaa leen folli rekk leen ba seen seet sax gàlli cooya fan lanu foli noon ba mag ba rikk garaatam ya mu mel ni pël ba mu la sef ba doola delwaan dem caar doom joo ñaan di xaaraan kër ya moon mu jaay ko siidi gaawaan ak naari góore yëpp la fab di laa xaan ridwaa nag dir këmbag lu góor doon alaaji seex anta daana ko bar suba ngoon cooye fan la noon bu dikk jébbulu ci seex bamba fekk seexi sébbulu ma leen tuut te buura Bamba jàppa daaru na suruya ba ñëpp ñëw tub di waaru ma jëkkale mbaaxaar mbaaxaar maamoon yoonu Bamba ko jox si xibra faal yoonu mbaaxaan ndar la fekk Sëriñ Tuuba jooda xaacu tuubal ko raamal koy maro du rëccu Seex Bamba naan ko mbaaxaan keroog fu nekk Jurbel waxoon naa la waxoon naa la waxoon naa la waxoon naa mbaxaan waxoon naa mbaxaan waxoon naa la waxoon naa maro man Serigne Touba ku ma meroon léegi nan maro mu ne ko duma moroog yow mukk ci dunyaa Seex Bamba du mooyu ko mooñ ngir fan ya mbaa xaat ko sëriñ bi xanaa danga xamul ni Firawna la tax mu lab ca baaru xal soo am dafa tuubal masaakilim teew mbàkki tuubal naa la jéggulu naa la raamal naa la rëccu naa ko Seex Bamba ne ko mbaaxaan mbaaxaan jéggal naa la bismillah waaw ko bëggoon a indi rek ci mbaaxaan ñu bari bu ñu déggee xasida gi xam ne sëriñ Touba bu jëkkoom noonu da koy jégle waaye mbaxaan nag dafa dugg ci biir Touba ndax mooy maami Cheikh Gaynde Fatma. mbaxaan ak la la la ba borom daal ne la doon woon la tere moo tax sëriñ